Qui fera la différence Qui fera la différence Ne cherchez plus, vous avez trouvé le véritable plaisir pour mes oreilles. Touba lu seen ànd ak euh, rajo Jokko FM ni ngeen ko xamee nag euh, at mu jot macha allah euh, ne moom moo di di njiitu réew mi tàmm di def suñu tolloo ci njeexitalat mi jagleel ko réewum Sénégal ci li nga xam ne moom moo di tolluwaay bi la nga xam ne moom la ñu jëfee dégg ngeen ko léegi bi nga xam nag juróom-ñetti waxtu ci guddi gi jot na fi mu nekk nii nag rajo Jokko FM nu mu tàmm di leen ko defal ñëw ci daanaka li nga xam ne moom la duppee le grand débat Moussa Pouy nekk Ah, ah, benn dale ko ak ki nga xam ne moom moo di ab ah, Abdou Aziz nga xam ne mu ngi bootoo ci APR nekk ci les quatre Sangalkam gox boobe ba noppi féete ak ki nga xam ne également moom moo di Issa Paye nekk fii ci Tëngéej li nga xam ne moom moo di a démocratique sénégalais naka noonu ku fi toogal société civile bi di ci euh, waa RADDHO di euh, Philippe euh, Diouf ñeenteelu daanaka gan bi di xam ne ba tey day fare ci kuje gi léegi nag dañuy bàyyi gan yi kenn ku nekk def sa ab nuyo su ko defee ñu daal di dugg ci li nga xam ne daanaka moo di laaj naka lañu ñu gisee jàngat li nga xam ne moom moo di discours Euh, bu euh, njiitu réew mi maki sal gannaaw ba nga xamee ne euh, wax na ba noppi ci li nga xam ne daanaka moom moo di taxawaay bi Abdou Aziz dañu lay bàyyi nga tàmbali nuyoo yi bismillah merci merci beaucoup aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa billahi alil azim en fait maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi Oui, monsieur Issa Paye Philippe Diouf ak euh, Bara Diouf euh, di wax né maa ngi am mbecté aussi pour ñëwaat fi ci Radio Joko FM pour euh, waxtaane discours njiitu réew mi le président de la république Macky Sall bi nga xamné ñoo bokk ndo doon ko déglu. di nuyu aussi les téléspectateurs plutôt les auditeurs en tout cas de la radio Joko FM euh, du nu le département de Rufisque de manière générale et en particulier les 4C plus précisément la commune de Bambilor et euh, le village de Creda de char où je suis et éventuellement du nu l'ensemble des responsables de, de PR au niveau national di wax ne ñu ngi am mbégte pour ñëw vraiment teew pour waxtaane li nga xam ne mooy le discours du président de la république jërëjëf euh, daanaka abdou aziz léegi nag euh, ñu bàyyi isa pay moom itam euh, mu nuyo ak mbokku daanaka auditeurs yi merci moussa maa ngi lay nuyu bu baax yow moussa puy di rafetlu sa liggéey ci rajo bi te suma la

ñi nga xamantene ñom ñoy ñooy auditeurs yi ñi déglu ak à travers euh, votre télévision virtuelle di leen euh, wax euh, asalaamualeykum di fas and ak yéen faram fatia li nga xamantene mom lañ la njiitu réew mi donc wax légui nuyu tous les responsables du département jël nuyoo bi teg ko si loxo coordonnateur départemental de Rufisque muy Daouda Niang maire de la ville de Rufisque jërëjëf euh, daanaka ah. Issa Paye ñu bàyyi itam euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Philippe Diouf bu Raddho mu nuyu mbokku déglukat yi Philippe bismillah maa ngi lay nuyu di la remercier ci invitation bi nga invité nii pour waxtaan si discours président de la république di nuyu aussi ñi ma bokkal plateau bi Issa Paye ak Abdou Aziz Seck ak Bara Diouf di nuyu directeur rajo bi ak waa rajo bi yëpp. Euh, bon man comme nous avons ko waxe société civile là beaucoup donc ñom la fi teewal rado la fi teewal de façon beaucoup plus spécifique peut-être société civile c'est un peu trop dire je suis là au nom de la rado donc euh, voilà ma ngi nuyu aussi euh, auditeurs et auditrices nous di nuyu waa Rufisque di souhaiter une bonne heureuse année par anticipation. ñu leen di jaajëfal ñoom suñu gan yi nga xam ne dégg ngeen leen kenn ku nekk fësal sa bopp mu des nag ki nga xam ne. Euh, moom moo di euh, Bara Diouf bu Pastef ndaxte nag euh, nee na embouteillage yi xam nga dem beeg dikk bi léeg day am ak gàllagose waaye ñu ngi koy xaarandi le temps que mu daal di yegg si alors léegi nag li nga xam ne moom moo la ñu dégg léegi ci discours njiitu réew mi Macky Sall lu bëri dellu si na ci engagement servir le Sénégal doon la ko waxee sax ëllëgu Sénégal sax la wax liggéeyal ëllëgu Sénégal.

yu nga xam ne maanaam discours yu yu gàtt lay doon mais yu am solo loolu dafay méngoo sax ak nga xam ne moom la ñu génne te ñu war a sa maanaam fast track donc mun nañ ne c'est un discours fast parce que loolu mooy dañu toll si jamono joo xam ne ji nga xam ne mun naa ne peut-être tout est urgent donc liggéey bi dafa war a donc raison pour laquelle ñu gis ne discours bi gàtt gaaw na mais tënk na lépp te loolu mooy li am solo kon yaakaar naa ne bu ñu duggee ci biir waxtaan wi mhm. maanaam farañ fàcc bi dina mën a leeral lu bare bari incha allah. Issa tey jii nii euh, euh, temps bi mu jël euh, dafa temps bu gàtt la ba noppi lii nga xam ne moom la Abdou Aziz léegi wax que discours fast track la. waaw xam discours bi ay fañ ko doon xaaree donc euh, wax dëgg yàlla donc euh, génnewul foofu euh, ay naal daal lañu lañu la ñu gisaat ay naal maanaam ne naa def la te suma juumul def na fi juróom-ñaari at te am na ay donc question yu crucial la donc cof na ci affaire énergie bi sax waaye gis nga fi mu nekk eh, ne sepa wes gaa ngi jàmbat ndax c'est pas où est-ce qu'on va donc mi amna eh, yo yoo xamante ne donc syndicat yi ñu ngi koy ñaxtu yooyu yëpp dafa nek ay eh, point yo xamante ne yaakaaroon nañ ne président dina si dut baram mhm. pour dalal xelu nit ñi mhm. waye bu fekkentene ñuy si ay horizon 2025, wala nga wax dina def li wala dinaa def la ak jafé jafé ñu nek ni mhm. day xala metti si ñun mhm. waaw parce que on attendait plus vraiment des des actes très concrets mhm. mais malheureusement donc euh, le président donc comme nous ko tamé def rek da nga da nga am déception ah, waaw waaw waaw déception parce que wax dëgg yàlla dama tey jii def comme cadeau de fin euh, loo xamante ne sur le plan social dina tax askan mhm. parce que fi ñu jëm nii ça va être extrêmement dur pour les mhm, populations mhm, donc euh, bu si ay horizon 2025 ou wala horizon 2035, mille trente cinq bu boobaa dafay am benn déception boo xamante ne dañ koy euh, dañ koy garder alors Philippe yow de dans si li nga xam ne moo di la forme bi mu jël nee na discours bi gàtt na mais c'est un discours boo xam ne c'est plus en perspective la nga jàngat waaw waaw aussi dafa naa loolay sama observation discours bu concis la discours bu gàtt la mhm. euh, c'est un discours de parce que day projeté wu un peu dans l'avenir moom par toujours euh, euh, sélectif mhm. maanaam loo xam ne da nga koy wax am loo xam doo ko mhm. xëy na nag peut-être aussi am na yu bëri mu waxul yoo xam ne am na solo xëju ci woon pour mu wax ko wala aussi peut-être dafa nekk yoo xam ne mhm. donc euh, je crois que forme bi loolu la joxe maintenant je crois que dinañ dugg ci biir kay c'est yoo xam ne waxu ko mhm. alors que c'est problématique majeure yoo xam ne ñu ngi secoué dinañ ñëw ci euh, li nga xam ne moom moo di problématique yooyu ngay alors Abdelaziz, est-ce que tu jii euh, ci engagement bi nga mom le président de la république voté bi mu ci jëkk wax le dialogue national néna mom taxawal nako le 26 euh, dernier euh, gis nañu ko donc comité bi taxawoon na engagé d'ailleurs pour que lepp lo xamné ne na fa ci rapport yi nga ko accepté est-ce que tu sur cet appel au dialogue est-ce que tu consensus bi muy wax amna ci par rapport ak li nga xamné mom modi les attentes merci Moussa <coughs> en fait, moi, je crois que pour déglouer le discours du président de la République, c'est un discours très fort. Mom la, mom la, la wax. Euh, discours bo xamné bi jël na en tout cas euh wax ko ci anam en fait euh, par rapport au dialogue national je ne vous apprends rien xam que né Sénégal le président de la république en tout cas ñaata yoon def des appels ñaata yoon l'opposition ñaata yoon convié na leen pour waxtaan pencho réumi parce que Sénégal ñu un pas et je suis heureux de constater que euh, à la pour un dialogue national ne les conclusions ya nga xam ne moom la fay su vraiment mu nekk loo xam li luy avancer lo suñu démocratie la mais luy amal njariñ askan bi yëpp lay doon et je crois que ne loolu képp ku nga xam en tout cas tu es un démocrate averti war nga ko mun nangu war nga ko mun a rafet la maintenant quand j'entends euh, monsieur Paye en fait j'ai l'impression que peut-être il y a parce qu'en fait, un pays, ça se gouverne avec une vision. Quand le président de la République, Macky Sall, nous parle de la vision 2035, ça, gis-gis la gis-gis nag dafa am solo ci kuy yore réew bëgg am foo ko jëmee loolu indi li nga xam ne tey buñ ne ay promesse la indi c'est parce que dañu toll en tout cas présentement ni gis nañ ne le président de la République amna Sénégal en 2012 14 ñu instauré le le plan Sénégal yaakaar de ci phase 1 ou PS bi lépp lu nga xamné ay réalisation la bu doon lool lañuy wax fi micro bi mën na wax ba temps bi jeex mm. tellement que c'est ñepp gis nañ né fan bu né président def na ci liggéey bo maintenant mu ñëw laajaat baatu askan wi sénégalais yi malgré problème yi coow yi wax yi le Sénégal je dis souvent que c'est un peuple averti c'est des gens qui ont cette maturité politique ba savoir xam nañu naka lañuy distinguer les baax et li baaxul. Euh, raison je termine raison pour laquelle mm-hmm. ils l'ont plébiscité deuxième mandat mm-hmm. bi mu ñëwé nak mu né damay ci deuxième mandat bi nak si laay ñëw waat phase 2 wu PSE mooy yi nga xamné mère 5, peut-être dans le coup ci bir débat bi pour ne pas mm-hmm. trop monopoliser la parole de soit lolu moy li nga xamné peut-être mun naa ko wax dans un premier temps. alors si li xamné pay euh, Paye mo moo euh, cette euh, donc ce dialogue national consensus bi est-ce que sentir nga effectivement que tey jii Macky Sall parce que daf opposition bi frange bu mag bi mm-hmm. wuyu nañ ko mm-hmm. ci parti bañ gis nga li nga la est-ce que consensus bi est-ce que dialogue bobu euh, gisone dans lequel ci euh, ci élection yi euh, mon frère wax na léegi ñëpp pas d'accord voilà Ce <laughs> n'est ne ñu c'est pas le cas Ouais, c'est pas le cas mm. parce que dans les démocraties modernes mm. donc euh, majorité confortable mais gouverne et l'opposition s'oppose mm vision chacun dans son rôle voilà mm. chacun dans son rôle maintenant donc euh, inviter tous les partis de l'opposition à ñoo nous ne sax duñu ay parti politique pour nous aussi dialoguer. dialogue bi am oui, mais le PDS euh, dafa am euh, faut. Mm-hmm. donc vous xamante ne mooy maître donc il a jugé que donc le dialogue bi nga le président woote ah dialogue boobu c'est pas un dialogue qui est très sincère et là maintenant avec le Parti démocratique sénégalais donc jàpp jàpp seetaan li ñu déroulé maintenant nag dans le format s'il y a un aspect qui war nañ ci mën a waxtaan le PDS est eh, très ouvert mhm. parce que bon, eh. le dialogue est mu ngi avant que nous doon dugg ci biir élection eh. mais forcé def def du forcing donc nit ñi nga xamante ne dañu nekk ci ay parti aussi def la ñu mën maintenant nag bi mu demee ba jël réew mi nag 58% comme nous nous ko donc il n'a qu'à gouverner. Mhm. maintenant que euh, ñun on est dans notre. Euh, vous restez sur votre position. Non, on est dans notre, euh, on reste sur nos positions mhm. en tant que parti, donc avec une ligne qui est là. Donc c'est un dialogue. Quatre votre dialogue. Mhm. Maintenant nous, on va dérouler notre stratégie donc conscientiser leen ba ëllëg ci bir bu ñu yàlla joxaatee nguur gi ñu dérouler donc. mais ba mu jaral leen ngeen départiru ak ño xamné voilà c'est des fidèles des fidèles comme ñom Omar Sarr ak ñu ni mel. waaw ñooñu xam nga ils n'ont pas euh, respecté un peu la ligne du parti xam nga euh, parti dafa am. Euh, donc bo démé ba nga xamante ne kii nga xamante mom mo la joxone ay responsabilités jëlee ci ay responsabilités dénk la. bu demee ba bokkut yow gis wala mu ne la defal li nga def leneen bu boobaa nag euh, yow yaay génn sa bopp mm-hmm. yaay génn sa bopp mm-hmm. bu ko defee nag parti bi nag moom la nga xamante ne moom la jàpp moom mooy ligne bi la tracé donc euh, bu leen dem franchir euh, ligne bi pour wuy ji parce que dalal suñu xel parce que l'Agnafayewa, peut-être, ça engage que les gens qui ont initié ce consensus, comme ils les appellent. Maintenant, nous, une stratégie politique, c'est autre chose. Alors, Philippe euh, Diouf, hein, donc, Bara, Khama, peut-être, euh, voilà, nous euh, pour les présentations d'Arieksina. Euh, Philippe, est-ce que société civile alarmée ou parce que dialogue la première décision était nous repousser donc élection locale est-ce que tu en tant que radio, avec le droit politique bi nga xam mom la sénégalais yi soxla ci dialogue bi nga xam Macky Sall mom la won woote. wa cest dire euh, ñun déjà je crois que xam ra ne ñun dañu mësa a d'abord dialogue euh, ma ngi fàttali un peu le pacte républicain bu Rado initié woon ak ay organisation de la société civile ak tous les segments de la société donc dialogue bi mënu ñu luddul diko ko rafetlu bon mun na am nak aussi xam nga dialogue mom ñi koy seq c'est une diversité bu ñu ne dialogue rek c'est parce que am na ñoo xam ne ñoom ñoo bokk xam ne ay kàddu lay doon bokku ñu gis-gis mais bu fekkee comme dañu ne dialogue national bu fekkee loolu rek tax ñu jóg loo xam ne ci njëriñu Sénégal normalement war nañu mun a même bu fa amee ay problème war nañu mun a dépasser problème yi ba ba pare mun a xam ne quelque chose de positif moo siy génn euh, je crois que dialogue bu ñuy wax démocratie dialogue dafa war a permanent je crois que si nous avons un dialogue national, c'est parce qu'il y a problème. Sinon, nous avons un dialogue national. Mm-hmm. C'est parce qu'il y a problème. Le mm-hmm. problème, c'est que peut-être que une lecture superficielle, nous avons un moment où nous dépassé. Il fallait de grands consensus, des consensus amoulon. xeyna lolo indi ay friction ba nga à un certain moment il fallait nit nous tok dialoguer moy dialogue national Mais mais démocratie euh, li koy avancé là, moy même bu fekkee yow ya nek ci nguur yow ya yore pouvoir amna ay je crois amna ay décisions yo qui engage le destin de la nation c'est des décisions yo xamantene ne dafa am consensus fort mm-hmm. du yo xam da ngay rek diko forcer parce que yow a yor pouvoir bi mm-hmm. un peu nak faut s'en désolé. en Afrique c'est un peu comme ça que ça se passe ça mm-hmm. dès lors que tu as les rênes du pouvoir bon tu peux te permettre ngay imposer une décision peut-être un calcul politique rek et que justement foofu sous nous disions dialogue national bi euh, moo euh, organisation élection à date échue que malheureusement day am ay repousse opposition bi parce que nous avons programmé des programmes. finalement il fallait que nous votions absolument Oui, c'est ça hmm. c'est-à-dire normalement élection est encore dañ tenir à date échue hmm. maintenant bu que élection l'élection dañ ko repoussée repousser aussi puisque encore une fois on parle de dialogue il faut quand même ait un consensus mais mënuñu ñëw rek di ko imposer. Mhm. je crois que yooyu moom moo indi dialogue national bi mais normalement pour man ni ma ko gisee dans une démocratie qui fonctionne. ay dialogue national sax parce que ça doit être permanent mm-hmm. sur les grandes questions qui engagent comme je l'ai dit tout à l'heure le destin de la le, le radeau donc favorable au dialogue mais d'abord on a quelque chose donc de, permanent alors Bara nous euh, ñu ngi lay nuyu ñu avec beaucoup nga nuyoo euh, avant ñu lay laaj peut-être euh, sa avis ci li nga xam ne moom structuration discours bu président de la République nga xam ne le premier mot wala bon li mu engagement ba noppi euh, ci li nga xam ne dafa wax d'abord ëllëgu Sénégal ba noppi wax li nga xamné ne ci premier euh, pas bi moy li nga xamné ne moom di dialogue bi mu woté won té le 26 ñu tàmbali ko. jërëjëf Diar Moussa. Mhm. euh ma ngi nuyu ñi nga xamante ñom la fekk ci plateau bi. di mhm. nuyu auditeur ak auditrice bu Joko FM. Mhm. euh d'abord du djéglu si si retard ah, am nga à ta gauche euh, Philippe Diouf Bourado Rado Issa Paye bu parti démocratique sénégalais ak Abdou Aziz Seck bu APR jërëjëf mm. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp ay yi peut-être que rek petit retard am parce que embouteillage am si dëkk bi. Mm. maintenant euh, discours président mais ci wax discours président dama euh, président def na discours début milieu fin amul amul ne consistant président parce que généralement discours bu mel pour un président réélu dafa faut un discours boo xam ne dafa novateur quelque chose boo xam ne dafa war a dafa war a euh, tracer benn vision bu bu leer dafa war tracer benn ay axe stratégique yu et tey on a l'impression que président dafa copier coller rek. Mhm. ay éléments de langage indi des ay slogan indi ay ay Sénégal propre ay euh, gouvernance sobre ay euh, endettement. productif et constructif wax na ay dialogue national am na ay questions yu essentielles yoo xamante ne dañ doon xaar ci président de la république mu dalal ci xelu sénégalais peut dinañ dugg si lu mel noonu. dinañ ci dugg ci kanam ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk si période bu nga xamante ne ñu ngi transition jóge ci benn monnaie jël beneen monnaie. Mhm. et on a que le président de la CEDEAO le président Ouattara ak le président euh, Macron. Mhm. ñoom ñoo wax. pour ñu écho mhm. lu ñu ci une demi phrase si wax te loolu peut être bu ñuy wax bu ñuy wax si valeur économique peut être dinañ si dugg. alors euh, justement Bara ci li nga xamné mom moom moo di entamu discours wu président Macky Sall le dialogue national passef bu ñu seetloo seen euh, kuréel euh, musul won apprécier rencontre bu ni peut-être aussi pour nous euh, je ne suis pas membre de PASTEF en tant que parti politique je suis membre du MRDS mais nous ak PASTEF ak une parti coalition une coalition politique qui s'appelle coalition Jotna. kon nañu coalition Jotna continuation coalition bi amon euh, son président. Mhm. donc moi je suis membre du comité exécutif de la coalition Jotna. Mhm. Euh, dialogue boy booy idée ou dialogue nek ci nek ci ci champ politique wala nek ci champ Sénégal ñu ne na Sénégal nous toog ñu waxtaan. loolu kenn du ko bañ mais day fekk kii woote dialogue bi mooy kan est-ce que nit kooku woote dialogue bu muy wootee sincère na si moom réellement bu ñu fàttale ko Macky Sall dafa nekk président de la République en 2012 bi mu nekkee 2012 mu ñëw fi avec son yoonu yokkute ñu taxawaalu un an un demi xam ne yoonu yokkute demul ñu changé de stratégie nationale de développement économique et social bu ñu xamee ne li ñu def doyul xamuñu fu ñu jëm gouvernance sobre et fi ñu jëm kan xamul ndax leer na ñu ne dañu def PC e, plan Sénégal émergent ñu def nañu un plan de développement bo xamantene notion d'émergence émergence peut être war nañ ci waxtan mais dafa jëm 2035 2035 horizon horizon ben président mais tay jii PC e dafa dem tejo cabinet McKinsey fay leen deux milliards ñom ñu bindal ko PC e. Macky Sall dialogué wul si PC wol ben Sénégalais nek lan nga xalat que ne moy stratégie ñu wara def dialogué wul si PSE mu dem Macky Sall dem indi créé ñëpp yaakaara woon ne CREI bu ñëwee dafay nekk la nga xamante ne nii day leeral lu waroon leer la Macky Sall def ko un instrument politique pour xeex Karim Wade jàpp ci Karim Wade bi mu demee ba Karim Wade sonal ko en tant que kenn ku mu jàpp ñëpp xam ne injustice na ko teg Macky Sall indi dialogue premier dialogue national le 28 mai 2016 xaw ma le 28 mai 2015 mu tuddee ko la journée du dialogue jamono joju dialogue bi lan moko taxone parce qu'il était dans un dans une impasse impasse bi moy comment faire pour génne Karim Wade mu dialogue xëy suba rek taxañ Karim Wade yóbbu ko Qatar exilé ko dialogue bobu fa la yem ba tey léegi est-ce que gis nga dialogue bobu comité bobu ñu installé won gis nga gis nga gis nga doxlinam Macky Sall dem ba ci biir élection di waaj ñew mu changer les règles du jeu sans dialoguer avec personne muy la le parrainage parce que bu ñuy euh, euh, yoon bi ñu jaar ba dem parrainage mooy après élection comité yi nga xamante ne mooy réunir autour du ministère chargé des élections dañoo waxtaan opposition bi ne bëgguñu parrainage ñoom dañoo bëgg bulletin unique la majorité ne ñoom parrainage lañ bëgg bëgguñu bulletin unique Macky Sall def parrainage dindi bulletin unique def li majorité dëgg foofu dialogue amu fa imposer ñu parrainage le jour du vote de la loi sur le parrainage ñu bunkeriser dëkk bi dóor ñu matraqué ñu opposition comme société civile imposer son parrainage avec liñ si parce que Macky Sall su ma ko 2019 il def élection eu xam ne da élection calme la yu amul ben ben ben ben contestation mais lol c'est n'importe quoi élection locale élection présidentielle aujourd'hui dafa am un contentieux électoral le contentieux électoral est toujours vivant Macky Sall fois, vous dugg dans une impasse impasse boobu vous créé ak le ak le ak le ak le parrainage vous ne parrainage bi appliquer à des élections locales mënu ko appliquer à des élections législatives mu bëgg nu mu ci génné mu woote dialog wala leen xol xool Macky Sall woote na dialog pendant plus de 3 mois ou 4 mois kenn xamul yeen moy lan moy structuration dialog bi hmm. xamna na ne dafa war a def discours à la nation dans quelques jours ñu woote nañ réunion li gëna graw moy ñu force ñu ñu ñu ñu copte ay nit ne leen na ngeen di bokk ci dialogue bi man dama daan reetaan bu may dégg duur wa dane mom ci rajoom la tok teleem la tok ñu ne ko da ngay bokk ci dialogue bi lool fu mu am à t'entendre à consensus a envie de réagir par rapport à aujourd'hui. oui rapidement si on prend l'opposition parlementaire aujourd'hui le leader de l'opposition parlementaire c'est le PDS si dialogue si on prend aujourd'hui la l'opposition après les élections présidentielles le second des élections présidentielles c'est la coalition du président avec Réumi, ne ce dialogue le troisième c'est nous, sommes Sonko président avec le président Ousmane Sonko connu ce dialogue aujourd'hui quand mon est ce dialogue Aujourd'hui, on te dit Omar Sarr en tant que personne, on nek que ce dialogue. Donc, ils ont rejeté tout de suite la notion de consensus. Mais les termes de dialogue. Aujourd'hui, Macky Sall est dans une impasse politique. mu il a régler son, son propre problème impasse politique. Pour me terminer, mm-hmm, mm-hmm. bu mi y tok moy la CNR, la Commission nationale de de, de, de, réforme des institutions. Mm-hmm. Vous vous rappelez, oui. la commission Mbao. La commission Mbao genn son rapport ma jox ko Macky Sall Macky Sall jël rapport am jox ko ay nitam ñooñu génn dans les médias vilipender la commission Mbaw la commission Mbaw avait décidé de faire de de de de créer une nouvelle constitution ñu jël si commission Mbaw li leen arrangé ñu appliquer ko loolu moo ñu indil Macky Sall wax waxeetam bi mu defoon donc dialogue bi bu ñu deful attention in fine fa la ñuy jëm mooy ñu remettre en cause la la question des mandats. Mhm. parce que Macky Sall il est dans une dans une impasse politique xam na ne élection li jàll 2019 ni présidentielle lii du élection. Mhm. xam na ne li mu def jaaj xam na ne aujourd'hui amul légitimité bi nga xamante ne un président normalement mort, war na mën a am day di il faut que moom mu ut solution bu mën jaar et solution boobu c'est la solution de tourner du dialogue. Abdou Aziz euh, presque euh, ñaari position moo dégagé Ou Rado en fait ñoom d'accord nañu que dina am euh, dialogue hein, parce que dialogue kenn mënu ko bañ d'autant plus que voilà pour waxtaan là mais dafa war nek lo xamné ne warul nek de manière instantanée dañ ko wara def mu nek luy jëm euh gis nga légui la réaction de Bara ak ki nga xamné mom modi moo di euh, Faye euh, pour ñom consensus amul voilà Macky Sall dafa nek impasse motax mu def lu ni mel euh, yow en tant que véritablement ku nek ci pouvoir est-ce que gis nga euh li ngeen li ngeen won dialogue fi ngeen ko tek fofu la par rapport ak li nga xamné mom la euh, opposition par rapport très bien merci Moussa euh, en fait moi à entendre parler euh, Bara et mes co-débatteurs j'ai l'impression que ils parlent de notre Sénégal franchement parce que il faut le dire le président de la République c'est lui qui a été élu président de la République du Sénégal il y avait une compétition ñi eu dem élection ñu gagné Macky Sall ñu falat pour mu et j'ai souvent dit dans, dans, divers plateaux que moi, c'est au Sénégal que je vois l'opposition. Quand on les appelle au dialogue, ils ne viennent pas. Attention, combien de fois le président de la République a appelé à des rencontres, à des dialogues, mais l'opposition ne répondait pas. C'est le droit. Ils ont le droit de déférer comme de ne pas répondre. Ça, c'est le droit. Mais quand aujourd'hui... Olof. Ouais, tey bi président Macky Sall en 2019, ñu falat ko mu am un deuxième mandat defagul sax 8 mois yu mat wala 9 mois ñi bëgg wax naan président dafa jaxlé dafa am problème c'est parce que. dafa nek ci impasse dafa nek ci impasse c'est parce que franchement euh, je crois que né nax sénégalais yi moy moy lool d'autant plus que réew mu institution yu am bu am impasse politique noo xam nañ naka lay mel fini, les institutions fonctionnent normalement quoi qu'on puisse dire. Malgré les sorties donc euh, dans, la rue euh, pour l'électricité, électricité, il y a du ces trucs-là, tout fonctionne, tout non, est Non, J'en arrive. C'est-à-dire hmm. quand, quand, quand mon frère Barre dit que le président, son discours-là, c'est il est resté à sa fin. C'est parce que peut-être tu n'as pas écouté en fait réellement le discours du président de la République avec tout ce qu'il a dit. Avec les mots, je vais vous donner un exemple. Il a qui projet de réalisation par exemple une boucle du Mayo. il a parlé du boucle du budget. il a parlé de l'autoroute Mbour Kaula tambakunda mhm. il a parlé du projet de modernisation du chemin de fer Dakar Bamako mhm. il a parlé ce qui est inscrit dans le PUDC absolument mhm. il a parlé euh, il a parlé encore il a parlé du réduction euh, réduction de la subvention à l'électricité pour mobiliser les 600 milliards nécessaires à la conversion de nos centrales au gaz et à l'électrification universelle. Nous mhm. mm corsage des peines pour les violeurs et les pédophiles. Poursuivre la, de la réduction du train de vie de l'État, téléphone, eau, électricité. Ça veut dire quand même, quand même aussi, d'accord que dans, dans l'opposition, c'est votre droit de s'opposer. Mais le Sénégal nous appartient tous. Quand le président de la République appelle à un dialogue, un dialogue national. Et quand vous dites que vous ne participez pas à ce dialogue, par rapport à mes camarades du PDS, peut-être quand on appelle, les gens viennent, peut-être il y a d'autres qui viennent, mais dans les commissions, ils sont là-bas. Mhm. Ils sont là-bas et ils vont prendre des notes, ils vont donner leur point de vue, ils vont participer. C'est-à-dire, xam nga politique politicienne barre, mm. askan wi le président de la république bi mu toogee ak nga la cest dire xale yi xale yi ndaw yi sax boo demee laaj leen dinañ la wax président Macky moo def lii président Macky moo def lii cest à na d'accord naa wax ne ah ñun day président fii dey yaakaaroon nañ ne dina fi def lii mais lii day dafa manqué mais li mu def ngeen teg si seen bët xam nga tamit mënu leen nax sénégalais yi parce que bu fekkoonte ne le président n'a rien fait kon président de la république du dinawaat élection en deux mille dix neuf gars yi tey falaat dañ ko falaat à hauteur de 58%. huit moy matérialiser li nga xam mom pour le peuple loolu xam nga lu mhm. c'est que nous avons un peuple mûr deug bo xamné nit ñi conscient nañ bu baaxa baax ci li xew nit ñi nak mën nañ nek dans la rue mën nañ indi ay coow euh, ay phénomène génn fi wax indi par exemple da yaakaar a des messi mais le Sénégal est actuellement souvent je le dis population ils sont au même niveau d'information que les leaders c'est-à-dire loolu mooy dëgg mhm. c'est un peuple averti c'est un peuple qui a toujours voté donc je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on nous parle que oui ceci le dialogue non Kamab, aujourd'hui li nga xam ne la Macky Sall def mais ñëpp ko war a saluer dialogue bi ñëpp ngi ñëw peut-être bu amee ñu nga xam d'accord mon nañ leen ko concevoir mais tey liggéey bi ñu ngi koy teg ñi ñu pour ñu jiite que ñu koy def diversité bi ñuy woote pour ñëpp pas ci participer Nous ngi koy def quelqu'un ça c'est des cas isolés quelqu'un qui dit ouais dama dégg ci radio bi né bolé nañ ma si xam nga aussi c'est des détails quoi franchement c'est des détails duma si mais li ma mën wax mu leer ba moy ku déglu le discours du président c'est un discours novateur c'est un discours d'avenir c'est un discours bu nga le président de la république en parlant des zéro déchet une ngi jël dispositions pour que nous, dëkk bi ñu sétal ka quitte à ce que ñu employions la force xam nga Sénégal c'est-à-dire man on ne peut pas casser on ne peut pas faire des œufs sans on peut pas faire d'omelette casser des œufs mm. alors que yow yaa ngi gis ne fii ñu ngi teg ay ay ay ay ne te mais si nous avons ay dispositions pour le faire nous à avoir des problèmes. raison pour laquelle je féliciter le ministre euh, Fofana mhm. qui a fait un excellent travail et qui continue à faire ce travail là Sénégal Si ko ci je termine par là en parlant absolument rapidement en mhm. parlant de oui en parlant de Sénégal à l'horizon 2035 mais lolo, vous ko que di c'est parce que vous n'avez pas compris ça ça montre que le président de la République il a une vision vision a gis-gis le bu sori parce que en fait 2035 Sénégal d'un ko war a été ci raay yi ba nga xam ne képp parce que alors 2035 c'est pas du ne peut-être Macky Sall mooy que président de la République ba 2035 mais il liggéey loo xam ne askanam la pour réew le qui ki nga xam ne mooy après bu ñëwee dina xam ne réew mi tegoon nañ ci anam yoo xam mu ngi alors Issa Paye est-ce que euh, parce que. Euh, appel au dialogue bi tendre vers donc une émergence euh, nga il a parlé donc euh, de consensus mais également euh, li nga xamné de manière inclusive c'est-à-dire ñepp cette dégager ngène position ngène statistique est-ce que tu économiquement parlant Macky parle d'économie solidaire endettement donc productif plus de 6 donc de taux de croissance face track passe presser le pas vers l'horizon 2035 Sénégal est sur les bons rails. xam nga Sénégal sur les bons rails mënuguñu ne wax ndax Aziz donc euh, Sénégal est nek, donc euh, nekkuñu ci beneen réew te li ñuy dund nous nous ñoo koy dund parlant de l'économie parce que bon, avant ñuy dem euh, ci élection ils ont tout fait pour cacher au Sénégal la vérité mais élection yi de la rek euh, pour revenir si Water dialogue bi président Water dialogue président commencé à bi <laughs> ah qu'est-ce qui se passe parce que président bi est-ce que est-ce que c'est vraiment Macky parce que yow yalla euh, nga rek élection yi légui mbir commencé les premières de première nécessité donc Ken xamul euh, fuñu jëm mais à partir de ce moment les gens se posent des questions et là maintenant sur le plan économique fondamentaux économiques yi nga xamante ne même le président mais ñun les fondamentaux économiques lan moo koy euh, firnde moi, nous ñu ressentir que sur le plan social mais vous faites ne sur le plan social on sent que nous, mu ngi gën de métti ndóol gaa mais nous, nous, yokku mais nous croissance bi plus de 6%. plus de 6%. Hmm. vous pensez que c'est des chiffres. non non c'est des chiffres abstraits. Hmm. parce que ñi nga xamante faire une croissance économique euh, à un chiffre ou bien à deux chiffres de nous sur le plan social éradication bien éradication progressive de la pauvreté Rwanda par exemple voilà mais quand au Sénégal la pauvreté est en train de s'élargir Nous ne pouvons pas et à partir de ce moment si le président maintenant dafa donc en 2019, 2020, nous neuf ñu euh, euh, PS horizon 2035 activé. donc donc fi mu ni nii gis nañu si at ya at yaa ngi dem. te deux mille trente ci bi quinze ans moo est ce que loolu muy naan nii yëpp dina ko parce que c'est des visions comme euh, Nico ko Mais euh, les mais vision yomb na mais la réalité sur le terrain c'est ça la difficulté de mhm. ce pays là parce que dafay mel ni fi mu nekk pas le Sénégal donc sur le plan économique il xaw a am benn dérèglement donc sur le plan économique le budget nous tax yokk prix électricité bi de nous édifier sur ça c'est une situation de déficit chronique et à partir de ce moment il faut que vous tapions sur un euh, levier pour mener à des ressources et là askan ce que nous sommes. et à partir de ce moment nous ce que nous proposons c'est vraiment donc euh, de nous édifier sur des questions économiques très très très très très saillantes Donc, mm-hmm. à ne bon une réduction drastique du fonctionnement de l'État mais est-ce que ah, peut-être peut-être des mesures palliatives des mesures palliatives ah, mais il n'y a pas de réduction ça c'est des annonces mm. donc euh, réduction donc du téléphone, réduction de l'électricité, réduction si si un logement mm-hmm. mais c'est pour essayer de bluffer les gens mais en réalité pas ça train de vue de vie de l'État Vous ko les de la République le budget du président de la République à la présidence hein, qu'est-ce qui se passe là-bas donc voyez un peu donc il faudrait que vraiment que nous euh, édifier les sénégalais donc euh, def ay rééquilibrage. Mhm. ba defee nag sénégalais yi xam ne kat euh, Sénégal ñu ko ci ay alors mais sur le moment pour le moment mon jàpp ne vraiment Sénégal dafa que sur les rails de l'émergence alors Philippe tu as dit, li nga xam économiquement euh, parlant le maxal, le endettement productif parce que termes des fois <laughs> ils ont leur importance endettement productif un taux de de plus de 6 de taux de, croissance on est sur donc euh, l'horizon 2025 euh, on presse le pas est-ce que sentir économiquement le Sénégal les lampions sont au vert. Wa bon man nak économie dafa domaine qui xamné <laughs> dama ci xaw mais ci luñu dund c'est ça c'est-à-dire en fait. Le président bi évoqué une réduction du train de vie de l'État mhm. je trouve que c'est une très bonne chose mais war nañ ci gën je crois que et c'est pas pour man le euh, problème au Sénégal c'est un peu le problème de l'Afrique c'est-à-dire cette euh, loi Afrique euh, état ni ñuy fonctionner tu te rends compte que bon li nga développement économique bi pratiquement ci fonctionnement état lay donne tout tourne autour du pouvoir parce que mon yaakaar naa au-delà même de la réduction du train de vie de l'état fi Sénégal amna ay institutions yo xamné taxawal nañu fi té pour man. amul woon amul won importance amul won importance c'est-à-dire amna yo xamné mom je crois que kok aussi nit ñi war nañ ci mais le simple fait de muy évoquer réduction du train de vie de l'état pour man c'est quelque chose de positif mais comme ni mo wax il faut aussi ñu gëna sénégalais sont hyper fatigués c'est clair c'est-à-dire taux de croissance ak xam nga yooyu c'est des systèmes économiques yoo xam d'ailleurs c'est pas neutre idéologiquement c'est pas neutre c'est-à-dire que il faut pas aussi euh, ci yoy rek ñuy ñuy yem ci ay taux de croissance. ci ay chiffres ci ban économie la. ci ay chiffres ban système économique la idéologiquement lan moko lal. ça mhm. li am solo ci doomu adam moy concrètement muy am ay moyens yo, nous dina ko permettre de vivre dina ko permettre mu dund dina ko permettre mu faju problème mu santé bi parce que yoy dafa bok ci droit droit les droits humains les droits économiques sociaux et culturels dafa bok ci droits humains mm-hmm. donc ñun côté avons rafetlu nañ ko mais mm-hmm. leneen li mu aussi mu jàpp président bi wax aussi affaire Sénégal propre cadre de vie loolu aussi dafa am solo mm-hmm. c'est-à-dire moi je suis parfaitement d'accord que euh, ñu xool nan la ñuy def ba nga xamante ne euh, Dakar Sénégal de façon générale dina nekk dëkk boo xam ne il fait bon vivre. Mm-hmm. parce que fi mu ne rek ni tout le monde sait qu'il y a une occupation anarchique de la voie publique kooku war nañ ko xeex mais aussi bu ñuy xeex lool dañuy xeex aussi l'occupation anarchique du domaine maritime parce que léegi bi ma ñëw maa ngi déglu discours euh, benn débat ci loolu là aussi je crois que il faudrait pas qu'il y ait deux poids deux mesures ñi nga xamante ne c'est des mécaniciens dañuy ñëw fii occupe ay benn espace peut-être parce qu'ils ont un espace ñu ñëw dégommer leen ils permettre ñoo xam dañuy occuper le, le littoral c'est-à-dire que ñun avons am sax air boo xam ne dañ koy dund parce que nous, c'est des gens qui ont de l'argent je crois que aussi il faut pas faire deux poids deux mesures Mais nous si beneen kii bi bu aspect environnemental oui nous kii bi aussi mu bëggoon rafetlu mhm. criminalisation euh, du viol et de la pédophilie mhm aussi, c'est quelque chose qui est... On, on débattra de, tout à l'heure sur ça, parce que nous avons euh, par, par étape. L'aspect économique donc, du discours de, de Macky Sall, est-ce que Bara Yakar Ngene, euh, euh, émergence bi muy woté horizon 2035 est-ce que ñu ngi ci Moussa émergence mooy lan. Moi, mooy nga mooy nga jóge ci fu metti dem fu émergence développement la émergence kon l'air émergence concept économique le bu est pour naxee ñu ko en en en en quelque sorte parce que bu ñu doon wax émergent on parlait. <laughs> des des des on parlait on parlait. di nga di nga am possibilité de lutte on parlait de pays après il y aura après le ñu jëlee tour bi micro ouvert des pays de l'Amérique mu tontu waaw des des pays de de de de l'Amérique du Sud les dragons de l'Amérique du Sud mm. wala de l'Asie du Sud-Est mm. ñooñu ay dëkk la yoo xam dañoo jógee ci ndol gu metti mm. dem ci situation économique boo xam dafa tané gis nga bu ñu naxante suñu bop Macky Sall dafa indi ben programme tudde ko plan Sénégal émergent plan Sénégal émergent mu séquencé ko première séquence bi moy PAP 1 plan d'action prioritaire 2014 2018 2014 2018 xam nga jeex mhm. légui nañu jël chiffre yi muy wax mom ak chiffre yi nek ci plan Sénégal émergent croissance bi ñuy wax depuis deux ou trois ans il te parle d'une croissance de plus de 7%. 7%, oui. 7,5 d'ailleurs. Alors que, les chiffres officiels de la croissance, c'est des chiffres de prévision. Croissance, Agence nationale de la statistique et de la démographie, moi, les bons chiffres. Depuis 2014, Agence nationale de la statistique et de la démographie, les chiffres officiels réels de, la croissance, parce que nous avons calculé deux ans après. Donc, nous avons chiffres, c'est à prendre à, à des pincettes. J'ai un exemple. 31 décembre 2018 Macky taux de croissance 2018 Sénégal 7,1 chiffre aujourd'hui il nous parle à plus de 6 Joxe tout le chiffre parce que Macky Sall instant bi objectif de croissance dans le PAP 1 plan d'action prioritaire du c'était 8 à l'horizon 2018 ñoo lajj sax si yoon bi nga xamante ne moom lañ jël léegi question bi ñu war a posé moom même bu doon da nga am nga croissance boobu la moo croissance boobu sénégalais bi sentiru ko parce que croissance mooy lan mooy lépp la nga xamante ne nii mooy jur njëriñ si dëkk bi mu yokkute yokkute boobu buñ ko sant buñ ko bu amee si Sénégal dëkk buñ ko partagé mooy lañ ci croissance bu nga xamante ne inclusive ñëpp dañ siy jot lan moo tax sénégalais lambda bi mënul jot ci croissance bi parce que croissance bi li koy tiré Sénégal te li ma si FMI la liy tiire croissance Sénégal c'est l'endettement public cest dire état du Sénégal bu demee jël mille deux cent milliards non non non non après dañu ñëw si endettement ndax endettement productif ou pas loolu c'est notre débat allons état du Sénégal bu jëlee xaalis bu bari dem hmm. lépp day bind ne lépp naa temps ñu nekk sa alable li mu yokku na temps ñu nekk sa croissance yokku na temps FMI daf leen wax ne leen seen croissance bi ngeen di wax depuis 2014 baax na trop si ñoom si ni ñu gisee parce que euh, grand bi wax na ko léegi c'est idéologique waaye fexe leen ba seen croissance boobu secteur privé di ko tirer secteur privé mooy lan mooy entreprise yi entreprise bu amee croissance mooy dafay am bénéfice bu amee bénéfice buy investir day recruter ay personnes yu bari day recruter ay nit yu bari loolu mooy créer emploi dans un pays mooy ne entreprise yi nekk nañ dans un position ba nga xamante ne environnement ba nga xamante ne mën nañ am mais bu fekkee entreprise sénégalaise bu ñuy conquérir si li nga xamante ne mooy alalu Sénégal ñu si jël projet yi gën a mag entreprise étrangère yi ñoo koy jël andi la ay projet clé en main ay pays yoo xam ne dañu am doole ñëw la dama lay labal temps mais sama entreprise moo koy tabax nga jël sa quatre cent milliards chinois yi tabaxal la Ila Ila Touba. Mhm. nga xam ne un projet si n'est pas mhm. mais yow da ngay endetté wu sa endettement du yokku nga taxaw ne sama sama sama sama infrastructure baax na bari na nga jël 1000 et quelques milliards pour defar ay lampadaire pendant que état ay sénégalais mënon lañ ko defal mm. lolu à la fin la lay indi moy après lolu muy jur day dem fay fay fay bor bobu day dem bu fayé bor bobu ba paré ñom ñi la ñu jël ci seen bénéfice lolu moñu moñu dal ci ci si si si légui à péage yi endettement boobu noonu xam nga lolu c'est pas un endettement productif mm-hmm. jël l'exemple pour benen bu gëna simple Sénélec dañ lay wax né ñom Euh, euh, euh, puissance Senelec yokku na fois 2 wax la éolienne wax la mais buñ duñ nga wax ne la les centrales yi nga xamante moy éolienne éoliennes yi yoyu c'est des centrales privées où la Senelec achète l'électricité chez eux alors que imagine toi bu quoi ne Sénégal dafa jëloon investir xaliss bi mu jël def ko ci terre bi 1200 milliards mu investir que ci c'est des centrales aujourd'hui on aurait un courant moins cher donc un changement de priorité un changement de priorité parce que priorité Macky Sall moy mhm. lan moy na def ay ay ay ay investissement mhm. na def ay lo xamante c'est à parler il faut volet économique mm. l'économie. économique aussi il faut que nous nous volet éco bi. Mm-hmm. le président Macky Sall ne nous parle pas de l'éco. on dit on en on en parlera. on en parlera sur l'action financier le oui. Le président Macky Sall. Mm-hmm. dafa wax volet infrastructure tout le tuddul Terre. Mm-hmm. mais nous on nous, fàtte Nous en service de Terre. Nous ne réceptionné le Terre en janvier 2019. Nous dina daw en juin 2019. Nous continuons dina daw en novembre 2019. Le ministre Omar Youm il y a de cela moins de deux mois, déjà dans le premier trimestre de 2020, c'est-à-dire avant avril 2020. L'année nous le président Macky Sall, moi, Sénégalais, aujourd'hui, gagne le terre De manière concrète. De manière concrète. Abdelaziz, <laughs> ah. bien, mais est-ce que économiquement, <laughs> contrairement à ce que les membres se gagné, réagir, mhm. voilà, bonne réponse. Ah, ah. Euh, je reviens hein, pour dire, xam nga euh, aussi organisé quoi organisé bi mooy euh, c'est-à-dire mënu bo jëlee fi wax li après jóge fi dam wax la le jóge indi wat li à moins que ce soit lié aussi ben voilà mais ce que je peux dire par rapport ak li nga xamné mom la mon frère Bara wax en parlant de l'économie du Sénégal xam nga souvent moi, je me demande damay wax ne euh, ñi nga xamné dañuy critiquer euh, les infrastructures yi nga xamné mom lañuy mom la mom lañuy ci dëkk bi euh, des fois dama leen comme des ennemis du progrès c'est-à-dire am peut mënul <laughs> développer sans pour autant avoir des infrastructures de base yu am mm, doole mm. Sénégal ci loolu la Sénégal nous ngi Macky Sall lay def mu koy des projets structurants non seulement structurants mais innovants en même temps parce que bon, en parlant euh, de de Ila Touba a dit Ila Touba en parlant bi ci affaires... économie croissance bi ak mm-hmm. mais am rew yu y Ila Touba doxal xam nga dama exemple bu ndaw rek yow bu Touba par exemple. le temps temps bi def aujourd'hui avec Ila Touba yow nga à dem julli à Touba pour parce que tu mets en en en euh, temps c'est pratiquement 1h20 minutes 1 h heure 30 minutes maximum ça quand dire xam croissance effectivement en parlant de croissance oui croissance bi ñuy yëgunu ko sentir ko xam nga xam nga bu un président bu nga socialement pour askan bi c'est le président Macky Sall pourquoi je le dis je n'invente rien du tout le président Macky Sall falo ba d'accord né prix au Sénégal yëpp ont été stable c'est-à-dire mënu leen wax le président yokk na li wa na li yok. amul woon benn yokk-yokk. parce que les attends j'arrive non j'en arrive c'est-à-dire dama bëgg wax ne bi mu le pouvoir bi en 2012 ba 2019 ay yokkute mënu leen wax ne dañ pas, li dañ yok li dañ yok li président s'est battu il s'est battu pour fexe ba stabiliser prix c'est-à-dire loolu man inventé wu ma ko yéen nekk dundandoo ak man Nous, suñ bokk nu benn réew lañ bokk muy Sénégal

Euh, en parlant des bourses familiales, en parlant de, la gratuité des soins de 0 à 5 ans, en parlant du CMU, en parlant de gratuité à dialyse, c'est-à-dire les plus nga lu faire, par exemple césarienne y a une gratuité le yu président indi pour les askanam pour ñi nga souffrir nous, Sénégal c'est le Sénégal de tous en parlant maintenant de l'électricité ça en arrive Moussa ñun sommes jullit lañ ñun ñëpp ay ay jullit lañ ñun ñëpp dañu ay mbokk lañ Sénégal pourquoi ñuy wax Sénégal réewu teranga la mais Sénégal ñëpp benn bopp mais lii am ba am dañ ko du wax nit ñi par rapport ak électricité bu ñu naan dafa yokk wala yokkul en parlant de centrale mais bi président yéen vous vous rappelez en 2012 bi ngay wax en 2012 bi ñuy arrivé au pouvoir boobu courant bi. moment comme ni émission ni no y a koy def Moussa yow ce problème y'a moy courant bi lee mu coupé hmm. courant bi couper non da nga naan lee mu coupé am do wax day da nga courant bi lee mu coupé c'était une vérité lolu mo fi nous ñu di ko dunda c'est ça la vérité des faits président Macky Sall bi mu ñëwé au moins il a stabiliser électricité bi nit ñi ñu ngi am courant ñu ngi am courant mais qu'est-ce qui se passe mais Sénégal yamul si ñi nga xamné ne am possibilité am courant baara tu peux avoir mën nga am courant sa kër am ay frigo sa kër am ay congélateur sa kër nekk da à l'hôpital say doom di jàng di tal seen courant di jàng normal mais en ce moment là am na ay dëkk yoo xam ne yi waxuma la am courant mais am waxuma la ñëw du amuñu courant président ne Sénégal ñëpp a ko bokk ñi nga xam ne am nañ possibilité mën a fay courant no courant boobu li ma si daan subventionné dama si am loo xam dama koy dindi. mais bu boobaa ana ana. croissance bi d'autant plus que dañu wax ne. am na ñu am courant am na ñu amul courant. ça ça devient un peu paradoxal. non ma ñëw cest à mm-hmm. dama lay wax ne. lu daf ne damay jël benn euh, maanaam on parlait de subvention à hauteur de vingt six pour cent mu dama siy dindi benn partie loolu may dindi noonu dama koy jël pour ñi nga xam ne amaguñu courant ñu boole leen si ñoom ñu mën a am courant ñi nga xam ne am nañu courant déjà ba mën a fay. ñoom aussi ñu supporter leen li seen bopp parce que subvention bobu la ñuy le président wàññi mais waxul né dañuy jël yok ni dañuy gaay ni ngui koy jëlee Sénégal yok na li daf na li c'est-à-dire Sénégal. loolu en parlant d'équité c'est dans ce sens-là que le mot am sens manam équité. Mhm. parce que président dafa japp né réew mi ñun ñëpp ñoko bok raison pour laquelle bo xolé bi mu ñëwé mu indi ay communalisation intégrale que commune yeb yem à égale dignité c'est-à-dire président dafa nek ko xamné ki man souvent je dis c'est un président ba nga il est révolutionnaire c'est un révolutionnaire sans arme Macky Sall ci même ay bourses familiales il c'est révolutionnaire c'est-à-dire il faut que les gens comprendre Madame ni président bu yore Sénégal bika ko tabax problème du ñàkk problème du ñàkk ay problème mun am mais ay problème su amé. dañ ko war analyser ci angle yi ñu ko war analyser teg ko ñu xalaat ci xool nu ñu koy defee loolu mooy la vérité des faits maintenant quoi qu'on puisse dire parce que nous ne fi lañ nekkoon démb ak barki du temps du petit socialiste PDS ba le président Macky Sall li fi jot jaar ñi di opposé wu di yuuxu di teub di dal fi jaaroon nañ fi def nañ preuve on les connaît <laughs> c'est ça la vérité président Macky Sall bi mu ñëwé nak indi un plan bo xamné bi en parlant du PAP 1 c'est vrai moy programme d'action priorité du du PSE phase 1 bi mais yow li président liguey ci phase 1 li mu réalisé si Sénégal, si Alain Bodem, éducation, santé, pêche, la preuve, Bodjele pêche, il faut que nous mais ça m'a beaucoup de pêcherie, beaucoup pêché. Je vais le président, a subventionné le moteur de Gali. Ça veut dire que Moussa, si vous on Gal, vous avez 1 million 300, le président a 1,3 million de faire là. Il y a 300, mais l'eau, il a un de l'eau. Il y a un de l'eau, il a un de gars nous di di content di wax ñu ne lutax ngeen deug ñu ne ñom ren tabaski ay xaru 100000 150000 200000 lañ doon ñu ne pourquoi ñu ne parce que nous, nous nu gaal yi moteurs yi nous subventionné nous nu permettre lool c'est-à-dire dañu am un président bo il est foncièrement social c'est quelqu'un bu nga xam il pense directement à son peuple euh, raison pour laquelle je mhm. termine raison mhm. pour laquelle mhm. ñu wara comprendre que né loolu mo loolu mooy mais la croissance dont il parle là je suis d'accord la croissance. Mais la croissance nous fait manger, mon frère. Bah. Alors, il s'appelle ah, c'est vrai, aujourd'hui, la croissance nous fait manger. Euh, euh Macky Sall, beaucoup de pays euh, présents africains, acceptent le principe donc, du passage de l'éco à donc euh, du CFA à l'éco euh, que horizon 2020 nous ñu en perspective et que également taux de change bi est-ce que vous pensez que si on fait un pas économique vers un pas peut-être euh, euh, financier est-ce que vous pensez que l'Afrique pour son intégration est-ce que tey jii nous permettre un développement. Wow. avant de répondre à cette question euh, pour rappeler Aziz si aspect il développer surtout la question de l'énergie tout ça mais dafa mel ni courant stratégique courant bi ñu yoko ni mais day am effet d'entraînement de. Hmm. ah oui y des effets d'entraînement yo xamante té te yenn prix dina yokk à di toné dootul yëm kessé ci yokkum courant non du yem ci yokkum courant bi nga xamante ne weer dé da fay jot. ñu né Aziz am sa facture nga fay nangama nangam. y a des gens qui ont commencé à se plaindre. parce que les entreprises yi nga xamante dañuy produire sen facture da fay dafay té te sen euh xaalis bi ñuy jël que ko fay si énergie bi fait que nous yok te bu des day am répercussions si li nga les coûts d'investissement les coûts d'investissement et les produits yi ñuy mettre en circulation dans le marché dafay yokk mhm. te bu boobaa c'est les populations ñun ñi ñoo ci gëna a mhm. ak population yi nga xamante ñom ñoo nekk ci biir. par exemple so jël kuy lakk mburu nga yok courant courant effectivement bo moytuwul. tour mburu bi day yokk yok na sax. Mhm. légui nga né damay wañi li pour jox ko lolou lolou ani euh, wa wa agence d'électrification rurale Le mooy seen liggéey donc ngalé kon ñi nga xamante ñu nekk si taax eh, yaay fay courant ñu fay courant la pauvreté elle est urbaine et rurale donc fofu dafa nek problème bo xam il a dit 6 des consommateurs je pense La ñi sociale la tranche sociale bi la tranche sociale fi mu nekk kenn toppewu dara gis nga Moussa hmm. c'est 15 millions d'habitants mais bon ñaa ñaata ñaata six cent six cent non non kooku c'est des c'est des chiffres abstraits rek donc dañuy parce que ay chiffres abstraits rek ay chiffres abstraits la ñu naan mu ah. développé donc euh, quinze millions de Sénégalais la mais boo xoolee la population urbaine donc euh, fil EP mm -hmm. donc les gens sont concentrés dans les dans dans, dans, dans les villes urbaines Faut hein. mhm. foofu la ñu mhm. donc lolo xam nga ko mais bu fekkente ne nag da bëgg pression sur la population urbaine nga xamante ne la pauvreté est une réalité nga naan da nga koy ñi nga est-ce que aussi c'est pas une manière de faire un un réajustement comme le le terme utilisé au niveau donc euh, de de la direction de la Sénélec un slogan qui est peut-être creux parce que bu ne damay def réajustement oui donc euh, loolu mën a justifier c'est pareil au même justifier un mm. peu l'augmentation mm d'autres augmentations euh, vont, suivre. Hein. Mm. aussi de l'énergie. Bon, euh, comme nous avons donc euh, en 2012, mais le PDS avait réussi à mettre en place un plan TACAL. Donc, c'est le plan TACAL qui a permis maintenant de stabiliser tout ça avec Karimad. Donc, il eu. Donc, il faut que nous ramenions le Sénégal ne commence pas en 2012 avec Sall. Donc Macky Sall a trouvé ici un État avec des fondamentaux sur le plan économique de continuer donc euh, les grands projets yi nga a ne moom lay wax ni mais ces grands projets là c'est la vision de Wade donc on continue vers les maintenant mon option moom moo barul. Euh, euh, tout à l'heure non non il a parlé du terre gouvernement vertueux il a parlé du terre mm. maintenant Macky ne parle plus du terre Macky parle de Dakar Bamako. <laughs> tu avais une autre vision. Quand est-ce que l'on peut réaliser Ça pose problème. Et maintenant, pour revenir maintenant à, le passage donc de l'éco, passage de l'éco, euh, donc euh, euh il n'y a poser un peu cette problématique de de de, la monnaie Abdoulaye Wade bokkoon aussi dénoncer donc les réserves donc euh, que les pays africains déposent à la Banque de France ou à la Banque européenne. Mm-hmm. donc vous faites que si schéma bi donc c'est le nom qui change mais la servitude reste donc dara hmm. dara dara de nous changer parce que toujours nous am une dépendance donc euh, si nous avons maintenant, ne donc euh, économie européenne c'est euh, nous africains nga donc on a commencé à travailler sur un projet avec waa hmm. pour avoir une monnaie unique mu ne li nga xamantene donc euh, ces pays yi nga xamantene ñu ñoo nekk dans la zone UEMOA avec à la tête euh, le président Ouattara donc mhm. Macky Sall nak si suivre donc ça va torpiller le projet de la CEDEAO mhm. et là maintenant donc euh, souveraineté monétaire bi nga xamantene africains yi bëgg lañ ko duñ ko am day détendre d'ailleurs suñu économie day déteindre suñu économie daf koy fragiliser c'est possible oui change CFA amati ECO mais donc euh, on va toujours être dépendant donc euh, de ces pays occidentaux qui vont nous exploiter. Hein. Michel est-ce que tu les Africains peuvent s'attendre Philippe autant pour moi on peut les les Africains peuvent nous nañu C'est croissance ak une yokkute dépendre si euh, li nga xam ne donc CFA dem ECO pour mën libérer wu tout ici, emprise donc li nga Union européenne rawatine li nga la la France économiquement nous devons développer waaw waaw man si question boobu xam nga dafa nekk aussi débat boo xam ne c'est un débat technique mais je partage parfaitement. Euh, la réaction de de Issa Paye réaction de Paye. Mm. je crois que quelque part xam nga am na benn dynamique boo xam enclenché woon na wax rappelé na ko léegi euh, africains yi ils sont conscients que. il nous faut une monnaie unique continuer nii mm-hmm. développement dañ ko wax rek mais du. on est très dépendant de la France la puissance coloniale. Mm-hmm j'ai l'impression que dynamique bobu la court-circuiter en fait c'est une manière de couper euh, l'herbe sous les pieds de tout ce qui avait enclenché cette dynamique pour arriver à une souveraineté monétaire mm-hmm. mais je crois que affaire et puis bo xolé sax forme bi ak niñ ko Macron ak euh, euh, Ouattara Macky Sall bon tu, te rends compte que finalement bon il n'y a pas grand chose qui change quoi mm-hmm. c'est-à-dire la stratégie change mais en réalité, euh, ce qui était là, j'ai l'impression, j'ai bien peur que ça va demeurer. Baradjouf, ce, ce, avis par rapport à ce passage donc, euh, monétaire euh, de, donc, du, CFA à l'éco sur l'impact que mën a am ci euh, l'économie et les finances donc, au niveau donc, des pays africains de la région euh, C'est une question importante. Peut-être que je vais tout rek mëna Allons-y. une question électricité bi. Mhm. Amé ragal dafa am ben confusion dans nuance. non confusion. wow confusion damay bañ wax mensonge d'état mu mu ëpp mais c'est une confusion ba nga le président de la république ak ses communicants mom lañ bëgg installer dans la tête des sénégalais dañu bëgg mettre le sénégalais bi nga xam mo dëkk le citadin ak le sénégalais bi nga xam moy le rural ñu gëmloo ne yéen ñaar mënu leen amandoo électricité au même moment gëmloo sénégalais bi nga xam mo nekk ci àll bi nekk soo ñàkkee électricité bi sénégalais bi nga xam ne moo nekk euh, si si si si taar moo la ko xañ parce que moom moo lekk subvention bi alors que loolu demeewul noonu ce qui se passe mooy lépp dafa am dafa am lien lien bi mooy lan mooy ñi dañoo yor réew mi si yorenu naa dem lépp pour defar infrastructure somtière naa def lu ma neex rek naa def lu ma neex ba élection jot boo leen set fàttali ko groupe consultatif de Paris bi ñu demee waa FMI dañ leen doon wax ne leen yéen nag seen subvention électricité bi nangoo nañ ne da ngeen nekk période élection mais foog ngeen dindi ko boo leen paree seen prix yi foog ngeen ajusté la réalité des prix la vérité des prix seen lii seen lii seen lii yo yoreen bu bon boobu ñu yoroon réew mi pendant période yooyu moo ñu dal léegi pour expliquer ko dañuy créer ay situation yi nga xamante ne dañuy wax lu leen neex rek grand bi mu ko wax léegi mu ne ana ASER mais bu ñu fàttale ko ñii dañoo am plan national d' rectification rurale gis waxu Macky Sall mag benn waxoon na Macky Sall waxam du du anniversaire mais 31 décembre 2018 tey le 31 décembre 31 décembre 2018 Macky Sall dafa ne. électrifié 2329 villages. oui am un projet de 300 villages dans quelques mois. Mhm. les 2329 villages ont ñu électrifié ak les 300 villages ça, yoo ñu électrifié électrifié ñu plus de 40% des des des villages du Sénégal si on fonds lañ ko électrifié sur le fond des programmes nationaux d'électrification rurale fonds yi nga xam aujourd'hui comme que sommes instant bi dans un dans des tension de trésorerie nekkul sax ay tension de trésorerie mais des hautes tensions de trésorerie aujourd'hui programme yooyu yëpp dañ koo dagg dañoo dagg programme yooyu yëpp pour continuer STER dañoo dagg programme yooyu yëpp pour continuer ay ay building administratif à Diamniadio dañoo dagg programme yooyu yëpp dagg programme yooyu moom lañ bëgg nag nekk aca yow sénégalais bi yow yow jaraaf jëwal nga fay ko ñoom seen erreur de gestion yi ñu def oui parce qu'à un moment à un moment damay complet damay rajouter à un moment donc terre bi ne nañ phase 1, bi dafa bi il fallait au moins donc faire des rajouts. terre bi la le prix du terre aujourd'hui dafa am lo xam extraordinaire ce qui s'est passé Moi, Macky bi au Sénégal en 2012 fait que le monde génne de la grande crise financière de 2009. grande crise financière biñ ci gars yi yor aduna bi xam nañ ne seen dof-dof yi ñu doon dof-dof la ak les prix mënatul dem ñu ne nañ stabiliser lépp. pétrole bi wàcc pétrole nekk à 30 dollars. est ce que xam nga ne état du Sénégal chez les États-Unis est ce que xam nga ne état du Sénégal. entre 2015 et 2016. Mhm. Mhm. zéro franc la joxe subvention à la Sénégal zéro. parce que amatuloon lu mu lu mu lu mu subventionné entre 2012 ba juillet 2000 2000 2000 2018 dafa am un fonds de soutien à l' énergie FSE fonds boobu dafay jël ñun. li nga xamante ne moom la ñuy fay une partie boo xam ne dañ koy fay si suñu courant pour dem si fonds boobu état bi def si une partie pour stabiliser Senelec fonds boobu ah dafa dafa dafa dafa liñ ko collecté plus de mille et quelques milliards la 2018 la état du Sénégal gëj a génne chiffre pour FSE bi parce que moo tax pendant période boobu yëpp xaalis boobu waroon dem pour jënd électricité jënd jënd jënd jënd jënd carburant fuel pour Senelec soxlaatu ko won parce que film bi c'était c'était c'était c'était c'était pas cher khalis bobu fa la jaar avant ñu ñuy wax ñun kay leen ngeen contribuer ñoom nañu wax liñu contribuer won dem ak barki démb fa lañ ko duggal parce que lolu moy problème problème problème Macky Sall benen bi moy bu ñu wat ci PSE parce que man j'adore le PSE parce que ñom dañu def seen programme ne li moy suñu programme ñom ñu ne à l'horizon PAP 2014 2018 prix électricité ñom dañ ne bu ñu defee seen investissement ñu war a def ba pare électricité day jar entre 60 et 90 francs CFA le kilowatt tey Sénégal. ba ñu mën a jaay ci biti. mais xam loolu xam nañ ko daaw tey Sénégal le prix c'est est compris entre 91 et 123 francs le kilowatt mhm. deux fois plus cher que ñoom la ñu waxoon ne moom lañu def ak les investissements mhm. dañuy xasee. nguru nguru nguru nguru nguru Abdoulaye Wade de plan takale da ngeen dem loué ji ay groupe mm-hmm. ñom qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont de dem loué ben centrale mm-hmm. buy flottante de ko port jóge Turquie pendant cinq ans lañu ko lañu ko fay pendant 2 ans 3 ans 4 ans il nous parlait de mix énergétique PC, e, il nous parlait de mix énergétique horizon 2018, mille dix 40% de, de, de l'énergie sera de l'énergie renouvelable. Mm. Madame éolien, solaire, Aujourd'hui, ils sont à moins de 20%. En réalité, nous avons un projet, un programme, nous avons programme bi bi ñu commencé lañ leen fi ngeen jëm baaxul ñoom ñu doon ba ci biir xam fi ñu jëm baaxul maintenant il faut que les sénégalais payent le prix le plus fort et loin li président Macky Sall wax en privé moo ne 2020, ça va tàngee mu ne 2020, dina tàngal trop ci sénégalais parce que yeneen yokkutee ñu ngi ñëw si éco bi. Mm-hmm en deux minutes président Macky Sall musul changer CFA. Mm. vous rappelle tous ici CFA président Ousmane Sonko son livre sur le CFA c'est de l'aventure le CFA une bonne monnaie à garder aujourd'hui de la France France pression populaire en Afrique et dans le monde pour que esclavagisme monétaire bi nga xamante CFA parce que système CFA pour nga comprendre comme mooy nazi allemand bi ñu France mom c'est mom France système CFA bu melni dañu tegoon France pour jël richesse France français biñ ci génnee dañ ah, na système bi kat baxna pour noot nit kaay leen ñu dem noter ak africain yi ñu ñu ko en en franc andi fi en 1945 changer nañ ay plusieurs plusieurs plusieurs plusieurs qui, lu ne def nañ ko ay changement ne français yi dañu génne si organes réalité bi moy lan aujourd'hui écho bi ñuy wax bu original bi éco original moy éco CEDEAO moy ñoo àndoon ne dañu def ben projet éco bo xam depuis 1981 ñu ngi ci dox aujourd'hui Macron ak Ouattara ont sur court-circuité l'ensemble des présidents africains et à dire ku seetaan président ku déglu président Macky Sall da nga xam ki il est sur court-circuité parce que là, la wax dane du am ben change waxul ci parité ci ci ci taux bi de ci parité fii parité bi c'est-à-dire aujourd'hui l'éco bu ñëwee day nek parité avec le le le l'euro arrimé à l'euro les économistes économiste yeb dañ lay wax né l'euro est une monnaie forte surévaluée manam mhm. euro doole bi mu am dafa ëpp kuy utiliser euro day fekk nga pays bo xamante da nga am capacité d'exportation en Europe le moteur économique c'est l'Allemagne ñom dañu am capacité d'exportation bu am doole parce que dañoo industrie bu am doole dëkk yi nga xamné amuñu capacité d'exportation bu am doole bobu moy Italie Grèce Turquie moy dëkk yi ngay dégg crise bi Europe France lenn moko tenir en en en aujourd'hui moy mhm. amna moyen jënd les matières premières à des coûts moindres en utilisant le mécanisme du français, CFA. Mécanisme Bob ah, Mais qu'est-ce qu'ils te disent Qu'est-ce qu'ils te disent Qu'est-ce qu'ils te Mais qu'est-ce qu'ils te disent Aujourd'hui, les réserves de change, vous n'êtes à la, à la, à la, au trésor français. Parce que nous à la Banque européenne, au trésor français. Pas le Mais il y a une autre question. Sur le stock d'or monétaire, mm-hmm. BCAO, mm-hmm. plus de 91% en France. Sur l'or or, il faut le dire. Quand nous gérer yi nga xamante ne moom la ñuy wax billet CFA yu ñuy wax c'est fabriqué à Chamalières en France kan moo koy kan moo koy yor option yooyu lañ doon xaare un président de la République aujourd'hui le président Macky Sall devait dire aux opérateurs sénégalais que ne que mais mais expliquer clairement ne leen ne leen du am dévaluation est-ce que tey jii baat hein. mais ma ne est-ce que président de la République hmm. sañ na taxaw ne dévaluation day am du am c'est une bonne question waaw c'est une bonne question alors euh, Abdou Aziz euh, damay euh, cet, aspect donc de, l'économie. Euh, l'agriculture, euh, donc renforcement base économique agriculture élevage pêche autosuffisance également si les si distribution bi est-ce que cet aspect économique amul souffrance au niveau du Sénégal si l'on prend l'agriculture les différents secteurs il y a mieux poussé pousser économie à la base. oui en fait non je ne pense pas qu'il y ait un ben euh, enfin je veux dire par rapport à l'agriculture que ce soit la pêche l'élevage moi je crois que euh, boo xoolee di euh, année yi ñu nga xool maanaam marge de projection projet euh, progression bi nga ne par exemple si nous prenons le cas de par exemple la pêche boo la pêche nga de 2015 à 2016 2017 voire même 2017 2018 euh, moo par exemple euh, sur le plan des exportations par exemple moo chaque fois mon nekkoon premier sur les exportations euh, du Sénégal à l'étranger. La de 2015, 2016, à, en 2015, je crois, c'était à hauteur. Ensuite, euh, en 2016, à 200 milliards et en 2017 à 244 milliards. Tu mm-hmm. euh, vois agriculture donc ñu guissons aussi ci fànn aussi Sénégal bo xolé ci mbay mi quand même amna lu bëree bëree bëri lu nga xamné manam bo 2012 à 2018, eu fu ñu doon am ay tonnes c'est-à-dire da ngay gis né différence bi manam c'était dafa am une différence exponentielle c'est-à-dire pour wane né euh, politique yi c'était pas la même chose politique yi fi nekkoon ak li ñu indi ko non ce n'était pas la même chose président Macky Sall dafa indi ay programme yu leer am am am vision bu leer ci affaire yi ñu diko doxal tay mun bo ñëwé di wax par rapport ak agriculture pêche naa ne nit ñi xam nañ bu baax li fi nekkoon démb ak li fi nekk tey euh, dans ce cas précis li ma mun a wax mooy en tout cas au niveau de l' agriculture ñëpp gis nañ aussi effort yi nga xam ne président def na ko pour jàppale baykat yi euh, ci wa ci fànn yëpp ci ci ci côté yëpp nag ci fànn boo mënti jël rek am na ay jàppale yu am solo yu nga xam ne def nañ ko pour permettre à nos nos vaillants euh, cultivateurs ñu mën a def liggéey boo xam ne bi dinañ ci mën a gagner et puis en tout cas li nga et ça moi je crois que ne képp ku nga xam ne nekk na si dëkk bi maintenant euh, par rapport ak euh, le affaire monnaie bi ñuy wax ni sur le plan économique euh, Sénégal xam nga tamit mënoo ñëw euh da ngay ñëw comme réew yi nga xamné ñun Sénégal on nous sommes des pays en voie de développement mais amna amna des pays ay moyens yo xamné yi ñëw rek nga ne da ngay rompre de manière définitive cette affaire ñëw taxaw non dafa am da ngay def de manière progressive parce que quand même quoi qu'on puisse dire suñuy réserve ak vous l'avez dit c'était géré à partir de la France mais c'est la France les représentants dans ces organismes Yep, yëpp ñu dindi leen ba nga siéger conseil d'administration par rapport au devenir de l'Afrique moi je crois que c'est des mesures fortes que saluer et en fait aussi il faut comprendre aussi que les euh, changement au ECOBI bi euh, par rapport au CFA qui def ci manam le parité ou mon bi quoi de l'éco en en quittant le CFA à l'éco ça dit lolu ça dit mais moi je suis pas économiste de formation donc je peux peut-être du épiloguer ci lo ne ni peut-être maîtriser ou mon quoi mais lolu c'est une vérité absolue c'est des réalités et moi je crois que euh, nous avons des des des économistes de renom ni ngi

de singulariser le Sénégal sur loo c'est pour l'ensemble des pays de la sous-région donc il va falloir aussi que nous nous baillons le lu mais est-ce qu'on a l'impression que y a pas de garantie autour de ce passage ECO euh, donc euh, CFA éco que euh, voilà est-ce que parité bi dara du rien n'est pas rien n'est rassurant d'autant plus que si discours président Macky Sall. Mhm. une bonne explication. non xam nga explication euh, li c'est-à-dire explication bu président mën a def mooy li ce qu'il a dit là pour moi c'est c'est assez révélateur c'est suffisant pour expliquer loolu maintenant li nga mën a def mooy wax sa population rassurer leen si li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy dem xam nga chaque fois que mu war a am changement parce que ça c'est l'œuvre de cest c'est la personne humaine c'est nit moo mel noonu quand bu benn changement waree am nit ñi dañuy dañuy am dañuy xaw a ragal dañuy sceptique c'est normal c'est comme en 2000 c'est comme en 2000 Bini Bini bi en 2019 euh, de euh, deux 1999 euh, pour dem en 2000 les les sénégalais ñu bari ñu ngi leen wax naan affaire le blog, le blog affaire fait des du ñu ni tu vois les gens étaient un peu réticents voilà di mm. la si yenn processus c'est-à-dire c'est normal muy am donc bu ñuy jógee si ñun CFA ñun ban ban juddoo ba légui si loolu lañ xam CFA lañ xam ci lañ nekk donc Sénégal tu là, la es là, euh, la mais ay changement mënul ñàkk mais pratiquement ce xew ba xew mooy ñom disposition duñu jël ay dispositions yo xamné day dem à l'encontre des intérêts de l'Afrique. alors ah vous pouvez en être euh, sûr et certain. de 200, 210 francs euh, le prix donc de l'arachide nous avons renforcé nee dañu renforcer lepp lo jëm ci production yi que ce soit pour la pêche pour que pour pour pour ce qui est de l'élevage ak li est-ce que tu as le monde rural uh-huh. est-ce que tu as dans notre économie cet aspect véritablement donc des couches sociales uh-huh. euh, li nga ne sais la si président Macky Sall que nous avons stabiliser la situation est-ce que tu à votre entendement donc stabilisation je ne le pense pas parce que xam nga am na loo économistes dañ koy mais eh, la pauvreté elle est essentiellement rurale Et pour nous eh, xëcc ñooñu nga xamante dañu ci essentiellement ay baykat ak ay samakat une fois que état bi mais le prix de l'arachide à 210 francs, francs eh, paysans c'est une kuréel yooyu ñom ñass luñu bëggon seen mais plus de 210 francs et am 250 ñuy mais prix bobu peut-être c'est lolu peut-être ñom lañ ci am ci xaalis me leen permettre ñu vivre décemment euh, yaa ngi d'autant plus que dañuy dem euh, xëcc ko ay député yo xamné ala xamné national ñi ngi wax nañ ko jambar ñi ngi ñi ngi wax né fi nekk ne ni sax euh, bo duggé ci all bi donc les chinois lañu investir all bi oui absolument jël seen gexé dañu exporter exporter yóbbu absolument légui buñ ko yobbo transformer ko donc euh, en produit dérivé ñëw euh, dugal ko dans le marché mondial dugal Sénégal ñu jëndee ko à des prix plus plus élevés mais ndóol gi du fi donc voilà voilà la amul stabilité jamono non non amour de stabilité. même la population continue à souffrir. non non à souffrir même la pêche ah, en question Bon, xoolee. li muy meilleur donc au niveau. donc euh, voilà non, mën na ko mesurer. mën ko hmm. mesurer boo xoolee non non non c'est difficile à mesurer On xoolee fi nekkati ni donc euh, Gigi, gi pour gars yi am euh, vraiment napp napp bu baax ça, il faut que hmm. nga du sore sore sore sore plantation au large des côtes ay étrangers non non euh, non fi que nekk donc euh, c'est à l'appel donc euh, avec sans compter pélagique yi nga xam gis nañu ne également bayu ñu leen loolu amatu fi amatu fi fi mu ni dafa dafa am overpêche fi nekk ni comme surpêche bi ni ñu koy waxe dafa am te fi dégg nii ñi nga eh, xam ne dañuy def am ay pêcheurs yoo xam ne tey dañuy bàyyi pour dem. bi euh, pêche artisanale bi pêche mm-hmm. te pêche industrielle bi fi nekk nii ñi ko mën a maîtriser bariwul. Mm-hmm. ñun suñu mbokk fi nekk nii pêche artisanale bi fi nekk nii sonn parce que motorisation en question mais bi nga xamante ne doon jël di joxewee moteurs yi di leen subventionné mais c' une mesure électoraliste. d' accord jeex na loolu <laughs> fi mu nekk nii nii koy jàll bon les ni ils ont énormément de difficultés pour s'occuper les pêcheurs étaient là vu ils s'en plaignaient voilà voilà les nak bolé les c'est maintenant le carburant qui devient de plus, en plus cher donc euh, do meuna mesurer maintenant donc la production au niveau de la pêche là il y a un problème au niveau de l'élevage également bo donc euh, cham gi ñom c'est un problème mais il y a le problème de la sécurité donc tu as vu est-ce que vu nek ni mëna ñu assurer donc euh, Sénégal si Walou càmm nous ñu am autosuffisance mais non tabaski. c'est une tension le Sénégal a recours à une importation. Mhm. ça pose problème mhm. tu as vu. donc boo les secteur aussi ça ne marche pas donc euh, le secteur primaire il a y a de réelles difficultés et à partir de ce moment lolo ay politique de a donc si la vision du président je n'ai J'ai pas vu, par exemple, des mesures euh, annoncées, dans ces secteurs-là, dans Dans tant que, donc, tant que nous avons des matières premières suffisantes nous devons permettre aux industries de les transformer pour que nous ne que sur les paliers de l'émergence parce que mm. aussi industrie mooy il faut que nous ayons mu baax am càmm empêche pêche pas pas, ces produits là puissent permettre aux industries d'avoir de la matière pour la transformation. alors Bara après euh, puisque autour de rôle euh, ça passe donc de la gauche vers la droite ñu soog ñëwaat ci Philippe euh, Bara justement est-ce que tu as une stabilisation dans la de la situation du monde rural si l'on sait que secteur nous nga agriculture pêche ak que le prix donc du du prix de l'arachide est à 210 210 francs, et que les gens qui ont eu l'effort di effort yi état consentir stabiliser leur situation euh, euh, stabiliser situation monde rural bi gëwuma euh, secteur primaire de manière générale la pêche l'élevage le l'agriculture y grande pourvoyeuse d'emploi au pays dans ce pays mais c'est le secteur où nous sommes socialement peut-être que euh, mën nañu wax si luñ gën grand Aziz peut-être il est dans le dans le secteur dans le milieu on nous parle de de motorisation man dama koy wax dama doon waxtaan ak sama sama sama yenn xarit yi nga xam ne ay ay ay ñu ngi si milieu bi ma ne leen en réalité qu'est-ce qu'est-ce que l'État a fait l'État du Sénégal dafay jox des autorisations de pêche à des industriels à des bateaux industrie étrangère ñu ñëw di dugg seen suñu suñu géej di napp suñu jën di ko transformer dans ces bateaux là di ko yóbbu dans dans dans dans dans dans leur pays bateau industriel yooyu dañuy fay une une une une une une une benn benn taxe à l'état du Sénégal may leen taxe boobu bu élection di waaj jël dañ ci jël benn parti ne leen dañ leen di subventionner moteur gal pêcheur bi mom li gis intérêt moy amna moteur bu bess lolu c'est bien parti il est obligé mu dem plus loin dans la dans am jeun parce que fi mu waron am jeun sur sur bateau yi nga xamante ne ñoo am peu capacité mais jaar nañ fofu ba ba jël lepp bu amul stratégie bobu gis nga bo deful corrélation bobu bo deful corrélation bobu bo deful corrélation do comprendre lan moy am te li gaay di wax moy ces ces subventions là période yi nga xamante ne période électorale rek lay en réalité la vision sur le secteur bi nga xamante ne le secteur primaire moo amul moi jox la si exemple bu simple gerte gi ñuy wax yeneen fàttaliku en 2017 fin de 2017 état du Sénégal ne dañuy suqali Sonacos Sonacos mu ngi jënd si deux cent dix francs boo leen jaayee koo nga xamante ne day exporter kooku dama koy tegal une taxe de quarante francs par kilo chinois yi dem ñibbi ne jaay jëndatuñu. parce que day cher bàyyi gerte gi absolument bàyyi fi gerte gerte gi lamb si. si mm-hmm. bay si baykat yi on s'en souvient. mois après ñu ne dindi nañ taxe bi lan moo tax parce que bi ñu doon def ce travail amul un travail. de vision bu bu leer bu xam lan nga bëgg def ak industriel bi c'est-à-dire mënoo am dëkk boo xamantane même bu dee dañ ne am nañ plus de 1 million de de tonnes de d'arachide pour man c'est production bu yokku c'est quelque chose de bien même bu fekkee ne même en interne chez chez chez chez dans dans le régime ñen ñu ngay ñu ngi contester ces chiffres là nga am système boo xam ne da ngay subventionner engrais subventionner euh, euh, euh, euh, semence mu am système d'accaparement bu am bu ay nit yu nekk si biir nguur gi dem ba à la tribune de l'Assemblée nationale. surtout di xuloo di xëccoo ku nekk naan am nga milliard diw am nag diw aw na diw aw na. tax xaalis boobu man dama war a am man dama war a am. seddaal sedd seddu seddu seddaal sedd seddu seddaal kii. sedd sa bopp sedd sa bopp sedd bu kii sedd sa bopp sedd sa kii. ancien footballeur yu am si ay quota boobu ñaan am na député yu am quota ay ay jëkkëru ministre yu am quota c'est-à-dire en réalité c'était révélateur vraiment en réalité c'est révélateur de benn affaire mooy au lieu que ñu def un système ba nga xamante ne ni day permettre à ce que béykat bi moom mu soxla ko ils ont fait un système boo xam ne ñoom dañuy dund si kaw baykat bi. maintenant président dafa wax sànq si discours am mu ne le prix plancher pour le pour l'électricité prix prix bi gën a ndaw. mais en réalité du prix plancher. Hmm. la Sonacos achète à deux cent dix francs. déglu nañ fi Mamadou Diagne Fada. directeur général de la Sonacos hmm. ñu nekk chinois yi trois cent cinquante la ñuy jënde mu ne waaye béykat yi nga xam ne patriote lañ. ñom dañ ñew jaay Sénégal 210 dañ ñëw Sonacos 210 kan moy liggéey ba son gis prix bu baax bay fi ci di dem jël ji benen légui réalité biñu ñu war a lan motax chinois bi mëna jënd 210 350 transporter ko ba Chine mu lu mu dee dina def au moins 2 mois si ci si si gi bala nga égg Chine mhm. ku yoy yeb yokku si chinois bi mëna transformer produit bi produit bi c'est lui andilaat la ko andilaat andi ko yow dans le marché mondial <laughs> alors que yow mënoo compétitif te yaa koy produire xam nga lan moo tax mhm. industrialisation bi nga xamante ne moo waroon ànd ak agriculture moo amul professeur Moussa Kassé defaruñu chaîne de valeur professeur Moussa Kassé mhm. dafa bind benn livre bu mhm. expliqué moo tax croissance Sénégal baaxul bu mu ñëwee si industrialisation daf na leen plan Sénégal émergent mooy document bi gën a pauvre en terme d' industrialisation ñi jang bu ne xol xool livre bi. Mm-hmm. plan Sénégal émergent moy document bi gëna a pauvre en terme d'annonciation énonciation. mu ci bëree autour. mané ne niñ koy baké lepp dañuy déllu wat c'est la ma doon wax ci début ba. moy ban vision nga am pour sa réew. d'accord Macky Sall vision bi ma am pour Sénégal moy dëkk bo nga xamante day importer rek. tey ñaata industrie ñoo dé ñoy dé Sénégal par jour lan mo leen di ray l'importation parce que aujourd'hui facilité yi nga xamante ne moom la ñu doon joxe industriel mhm. leen ko industriel yi duñ mën a investir parce que ñëpp nañ leen taux de pression fiscale bi dafa dafa dafa. ba pare dem mooy ji ay entreprises. ba pare dem mooy entreprise étrangère yu ñëw bu ñëwee ñoom nga défiscaliser leen complètement ma ne booy jëlee benn tali boo nga xamante ni une entreprise sénégalaise mënoon na ko def. même bu ko entreprise sénégalaise mënul koon def nga nekk entreprise sénégalaise bi ah, yow yaay gagné marché bi demal nga nga uti ay partenaire hmm. demal nga uti ay partenaire hmm. pour gérer autoroute à péage est-ce qu'on a besoin de Gérard Sénac pour mu gérer ko mën nañ ko gérer suñu bopp hmm. mooy vision bi ma doon wax gis nga grand bi dafa doon wax sànq ba ne ñun nous sommes des ennemis du progrès mais grand bi dafa jàpp dañu xamul ne le progrès réellement du rek ay ay ay ay ay ay infrastructure le progrès réellement progrès progrès deug buñ ko def ñu ba bi liggéey am liggéey la transformation transformation moy industrie li tax passé dans une conférence docteur Doudou Sarr ñu nek immigration clandestine mu non immigration clandestine mu Afrique C'est liggéey bi nga c'est transformer seen matière première comme que ñu ko liggéey dem dem liggéey ko jeune africain en Espagne di liggéey si si si si si si si si si du wet jeune Afrique boobu dans les champs bu fekkoon ne produit yi nga xam ne Espagne mu ngi koy def su produit yi nga xam ne moom la ñu defar suñu dëkk valoriser nañ ko fii la koy witte ki nga xam ne dafay dem en Italie di liggéey dans des industries bi du poisson pour des industries du poisson dafa amoon fii fii la koy liggéey la la faute aux, dirigeants africains c'est manque de vision non la faute à Macky Sall c'est manque de vision générale du Alors, Sénégal. alors euh, ñu ñu ci euh, euh, Philippe avant Aziz di di joxe tontu par rapport à Glolo. est-ce que tu es le monde rural ci comme Macky Sall ni renforcement pour stabiliser la situation du monde rural. micro euh, d'abord euh, nous quand même l'effort du gouvernement Macky Sall envers le monde rural c'est un fait mais aussi euh, aussi il y a beaucoup de difficultés dans le monde rural parce que moi je connais bien le monde rural et moi ce que j'arrive pas à comprendre je comprendre moi mais pourquoi nous imposer un prix au monde rural par rapport à l'arachide. Oui, surtout le Parce que moi, je suis waaw euh, euh, éleveur qui a imposé un coût buy j'ai, ay nagam pêcheur qui a imposé un imposer coût suis un paysan bi nga pendant des mois et des mois sous le soleil mu ngi pare ñu ne ko par force li ngay jaay mais man c'est ce que j'arrive pas à comprendre. est-ce que c'est pas pour contrôler le marché puisqu'on parle de d'exportation est-ce que lolo aussi contrôler le marché parce qu'il y a deux marchés il y a le marché euh, intérieur et le marché donc euh, d'accord mais dans ce cas il faut nga valoriser quand même produit bi nga xam moy produit paysan surtout puisque yow yaa koy produit nga produit effectivement bu ko jaayé mu mun ci am quand même lo xam comme nous, ko nous nous nous nous décemment. c'est vrai mais le monde paysan c'est un monde très difficile hein. mm -hmm. c'est un monde très très difficile. Mm -hmm. il y a eu des efforts qui ont été faits ça il ne faut pas quand même le nier. Mm -hmm. mais beaucoup de choses restent aussi à. Abdaziz par rapport à. Cette critique sur. Euh, absolument en fait je me je, me réjouis que. Diouf puisse reconnaître quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. que ça quand même c'est extrêmement important. Par contre, je vais corriger un tout petit peu mon frère Barre, ah, Parce que, voilà, Barre. Non, c'est pas ça du tout. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cadre de Thierry, il euh, y a ce qu'on appelle les accords de pêche. Les ci de pêche yi nga le Sénégal signé non seulement dañ encadré mais c'était accompagné d'une transparence réelle tu sais pourquoi parce que quand euh, le, ministère dit des négociations, nous savons que nous avons beaucoup de pêches, comme en parlant de chaîne de valeur. Nous savons que nous même les marées, nous avons beaucoup de pêches, nous avons beaucoup de pêches, nous avons fait de boo gisee ay problème mu coowal ay licence de pêche ak ay pêche ak ay coow amul woon c'est parce que ñi nga xam ne ñoo daan kaas dañ leen yóbbu ñu fekkee beneen bi stop ben, xam nga ban ban lan lañ si ñëwoon le ton kese waxuma ñaar waxuma ñett le temps. kese lañ si ñëwoon mu nga xam ne la ñi ngay wax nii de mom la ñuy am droit napp donc beneen bi si topp am le code de la pêche bu nga xam ne voté il y a je crois il y a deux ans de cela boo xam ne bi dafay protéger la ressource ñu indi ay ay ay mesures yu leer par rapport ak yi nga xam ne moom la moom la ñu war a am droit pour mën a euh, pêcher par exemple euh, maanaam les pélagiques là dont vous parlez ça dafa am loo xam ne lii c'est pas ça la la la réalité loolu mooy li nga xam ne moo nekk te bateau yi dafa amoon ay sanctions yu yu les bateaux pirates nga xam doon ñëw pour di di di sañ dañ leen doon jàpp di leen arraisonné seeni i bato yi te day dem ba nga xam ne dañuy fay amende yoo xam ne demoon na ay amende yoo xam dañuy dem ba un milliard d'amende yoo xam ne dañ ko war a fay yooyu des mesures dissuasives yu nga xam ne état bi da ko jëloon mais quand même il faut ñu reconnaître aussi que euh, peut-être les moyens yi ñu war disposer réellement pour la surveillance de nos côtes peut-être foofu dinañ def des efforts pour renforcer davantage euh, la surveillance de nos côtes et tout ça mhm. mais quand l'effort yi nga du Sénégal def na les mesures pour protéger la ressource pour protéger nos pêcheries moi je crois que c'est extrêmement important donc il ne faut pas dire que dañuy mètre, ñuy ñuy pêcher à gauche à droite non ce n'était pas ça du tout parce que quand même il y a une réglementation qui est là Nous nous ngi suivre top, ngi comme nous le nga moom moom moom moo am maintenant euh, pour euh, waxaat un tout petit peu par rapport ak gerte gi c'est vrai xam nga dafa am loo xam ne un état organisé aussi dafa am nu muy doxee c'est-à-dire am réew aussi dañ koy teg ci ay normes Li la ni lañu calculer né li lañu wara def buñ ko défé organiser que parce que état bi day accompagner baykat yi ci lepp organiser que de telle sorte que ñu waré jaay nak ñu xol ay prix yo xamné homologué ñu calculer li bu amé dina leen permettre

parce que loolu mooy li nga xam ne mooy rôle président de la république et depuis que mu jël au pouvoir ba léegi yaakaar naa ne Sénégal problème yi ñu am ay bon impayés yu kenn ngeen xamul yooyu kenn déggatu ko fi. parce que pratiquement le problème a été résolu. alors cest à tax ma bëgg bu ñuy wax aussi que vraiment ak lolo loo nekk loo contre contre contre aussi li nga xam ne lu baax la nu def ka wax dëgg yàlla et nangu ka. alors Paye dañuy ñëw euh, peut-être euh, sur euh, dégg nga li nga ne moo jëm aspect social. Euh, nga xam ne euh, ci biir discours bi dégg ko violence faite aux femmes on l'a vu d'ailleurs dañu euh, donc criminaliser li nga le viol ak donc ça va mettre normalement à l'aise notre ami de la rado notre ami de la rado ñu criminaliser le le viol est-ce que tu es le Sénégal parce que nous souffrir sur d'autres aspects que de am ay incidence sur notre société au point que nous toutes ces violences nous ne criminalisé. pas ñuy criminaliser euh, nan ngeen euh, posture boobu nga du Sénégal am sur euh, donc li nga viol ba soumettre à l'Assemblée nationale mu passer au vote ñu criminaliser li le viol avec les formes de violence faites aux femmes et aux enfants. bon aspect bobo aussi donc c'est très sensible donc plus que état du protéger, protéger on salue parce que xalé yi donc euh, dañu y a eu beaucoup de maltraitance euh, comme on dit maintenant ne pas ne pas tomber sur euh, donc l'autosatisfaction hein, l'autoglorification donc on a fait ceci on a il faudrait que peut-être ñu gën également sur mm. sur la protection donc la prévention parce que aussi xam nga am yo xamantene bul bul bul bul jiital bul jiital sa la pression donc de la communauté internationale parce que donc am a si ay structures yoo xamante au niveau international donc di un peu les États à prendre des mesures mais donc bu ñu demee ba maintenant donc sur ce plan, donc vraiment, donc protéger les enfants, protéger les femmes, donc euh, on n'a on a rien à dire, donc euh, on salue la musique, quoi. Para, nan nga cette euh, mesure du chef de l'État soumettre à l'Assemblée mondiale au vote que l'Église s'est criminalisée. Mais ah, les les les violences faites aux, enfants. Les violences faites aux femmes, c'est problème société la société la société euh, bari na ay mbir yoo xamantene peut-être euh, xaw exposition médiatique bi moo tax mu gën mais réellement on sait que notre société est est de plus en plus malade quoi donc euh, pour moi, déjà lii c'est une bonne chose c'est une bonne chose parce que malgré que bari na débat bari na discussion nan lañ koy encadrer dans l'encadrement mais de manière générale il faudrait. pour, une fois que ah, <laughs> bon euh, <laughs> on n'est pas des nihilistes hein, franchement on n'est pas des nihilistes. mais nous, nous nous nous nous sommes c'est c'est c'est c'est bon. il faut, il faut féliciter aussi le, le, rôle des, des, des, organisations féminines mm. qu'ils ont porté, qui ont porté C'est vrai que e. c'était un combat. C'était un combat. Maintenant, L'aspect moy bi nga y' a un autre aspect que le président a parlé le président a encore parlé du problème des enfants de la rue. Moi, je pense que le président devait arrêter de parler du problème des enfants de la rue parce que il nous avait. n'a pas été une réussite dans sa nous avait annoncé le retrait des enfants de la rue le ministère de chargé de la protection des enfants a fi def ben cinéma à la RTS Nous, on ñu jël ay xalé di len dugal ay c'était politique. c'était politicien et c'était pitoyable parce que c'était joué sur l'image de de de l'innocence de ces enfants là. Le problème des enfants de la rue c'est un problème social c'est un problème boo xamante les effets d'annonce qu'on les règle. Mm. Ça ne se règle pas par des arrêtés. Ça ne se règle pas par des décrets. Ça se règle par une inclusion sociale mooy dañuy wax ak sénégalais yi nga xamante ne yëpp problème problème bii dafa dafa leen dafa leen dafa dafa dafa dafa leen dafa leen dafa leen encadre dafa leen yem muy en en partie ñi nga xamante ne ñooy jàngale beneen système éducatif mooy système bu daara bi neen bi aussi ñu lijjanti le problème de xale yi nga xam ne pour la plupart c'est des orphelins ñu nekk dans dans dans les gis nga loolu nag moo jar débat national loolu moo jar ay dialogue national loolu moo jar sénégalais yi waxtaan c' est question questions sociales yoo xam te ne c' est des questions importantes approche bi si président Macky Sall am du bu baax on va revenir tout le temps au au au au même au même problème beneen bi mooy au plan social aussi bu ñu fàtte no parent yi nga xam te ne ils sont dans les de correction lii am rëbës mais c' est une honte pour tous les Sénégalais. On se rappelle, en 2015 ou en 2014, Mimi Touré, euh, alors euh, euh, ministre de la Justice, mhm. avait annoncé la fermeture de la prison de Rebus. prison de Rebus, c'est prison si affaire bo lu lu Google ko c'est mandat de dépôt. mu dem prison boo xamante ne condition de vie. Hmm. mën na fa jël feebar yoo après mon mon dina ko sonal. mais mën na hmm. fa jël ay comportement yoo xamante ne comportement yi nga xamante ne moom la société de bañ. Hmm. donc au plan social il y a beaucoup de choses à faire malheureusement on a vu que le président n'a pas parlé de ça. au plan social aussi il y a aussi ak une commande ko des des progrès que le président avait fait mais ay mesures yoo xam ne daf ko annoncé mu nekkoon loo xam ne ñëpp si d' mhm. je donne un exemple euh, la couverture maladie universelle. oui projet boobu koo ko wax da parce que nous, ñi nga peut être am nañ chance de liggéey dans dans le formel mën nañu am une couverture maladie ñi nga une ne ñu dans l'État, état defal couverture maladie mais le reste de la population amul une couverture maladie et la santé coûte cher mais malheureusement malgré que projet bi nekk projet bu baax fa lañ mujjee dafa mujjee ba certains, euh, certains hôpitaux ou certains dispensaires d'une couverture maladie universelle parce que l'État ne paye pas. moi le seul drame avec le président Macky Sall. Vision bi baxul, le peu de def lu muy bax, bo démé ba ci bir, da nga un problème. Moy exemple bi gëna simple moy Promoville. depuis 3 ans, amul ben projet Promoville bu taxaw bu bu yegg. Tay ji man mi dëkk ci daga pour dem jakk ji dama am problème. Tali ci daga mom dañ ko dag carrément depuis 3 ans Promoville dafa taxaw. septembre deux mille deux mille deux mille deux mille deux mille depuis trois ans tey jii les les chantiers yi nga xam ne ñoo nekk à Rufisque depuis années c'est des chantiers de l'État du Sénégal mënul yegg parce que lan dañuy dugg ak état boo xamante ne dafay engagé ay bu ay ay dette engagé ay entreprise te mënu leen fay mooy la lancé na mooy le lancé na problème de la dette dette intérieure moo tax ma ne la lépp day delluwaat si économie lépp day delluwaat si choix stratégique yi nga xam ne président def na ko ku bëgg doxal réew da ngay xool ay choix choix yi ngay def nga xool choix yoo xam ne dafay am si doxalinu réew mooy ne dañu ne dañu investir si lu prioritaire au plan social ñu ñëpp seeraan nañ fa ni passé le budget de le vote du budget euh, sur le ministère de la santé mhm. ministère de la santé ak problème yi nga xamante ne hôpitaux yi am nak ko tey ji ku dem si hôpitaux sénégalais yi da ngay tiit je exemple bi gën simple mooy hôpital bi nga xam ne moo nekk ñun à côté hôpital Youssou Mbargane Diop de de de de am problème doo fa mën def sca doo fa def radiographie parce que radiographie dafa pan ñu ne le budget du ministère de la santé dañ koo wàññi de neuf milliards entre deux mille dix et deux mille vingt c'est le onzième en termes de de de de de kii de de de de dotation mais cela veut dire qu'aujourd'hui les priorités sont ailleurs. les priorités ne sont pas sur le social. malgré tayji euh, euh, effort du président Macky Sall dans sa politique euh, sociale parce que les mu fi yëkëti lu ci ëpp violence faite aux femmes et aux enfants ak ndamoo li nga xamné mom donc criminalisation véritablement donc du viol. micro. mais évidemment dama koy rafetlu en tant que militant des droits humains Bara rappelé rappeler ko léegi c'est aussi combat boo xamante organisation féminine combat euh, je crois que du problème bo xam dafa bitim c'est un problème réel parce que ñun ñi ci liggéey xam nañu réalité bi c'est-à-dire y a des femmes y a des enfants y a des filles qui sont violentées ci am ay cas yo c'est des cas précis Hol aussi un peu lan moy cause parce que bo c'est un problème de société ah. bo démé si bir sax tu te rends compte que ci biir société boobu dafay am lu ñu a des genre ay soit c'est des mécanismes conscients ou inconscients de légitimation même de ces violences là mm-hmm. donc ça veut dire que loolu dafa nekk loo xam ne ci bopp yi la mentalité loi baax na ci c'est vrai mais ñun yàgg nañ ci en termes de sensibilisation d'éducation de formation parce que da ngay gis non seulement causé, mais da ngay gis impact yi impact yi ci femmes yi nga xam ne ñoom subir violence et quand une femme subit une violence dans le cadre familial a aussi femme femmes directes. c'est toute la famille c'est les enfants donc c'est la société parce que beaucoup on be violence faite aux femmes et aux filles a poser problème de développement de déconstruire la société euh, donc nous nous, nous, problèmes de c'est les organisations de la société Mais c'est pas le moment aussi de dormir sur ces lauriers. Non seulement c'est pas le moment de dormir sur ces lauriers, mais en même temps, l'État ma évoqué l'égalité euh, mentalité bi moi, sensibilisation avec éducation Il faut continuer. parce que loi loi c'est vrai baax mais aussi euh, faut pas insister rek le caractère contraignant cest mm-hmm. il faut aussi éduquer les gens ba ñu dem ba parce que ñi nga xam dañuy justifier violence xëy na du ñu gis la violence yoy mais boko jangé jàngee psychologiquement impact violence yooyu boo gisee normalement war nga ko mun a donc c'est bon. aussi il faut aussi il faut quand même application. Hmm. il faut ah, mu pas voilà il suffit pas il faut une application. Hmm. maintenant pour ce qui concerne les enfants. Hmm. là aussi c'est vrai koy mais il y a aussi des efforts à faire c'est comme Jean jeu de yo-yo quoi c'est-à-dire c'est des va et vient ne a une solution mais on revient presque à la case départ je crois que si côté il faut beaucoup plus d'engagement. et moi, dama je ne xëy na sax li bloqué problème des enfants et surtout les enfants de la rue mendicité yeeg yooyu ci considère que c'est un problème assez délicat parce que y a une confusion avec le religieux donc à partir de ce moment là peut être man ci sama analyse dama je ne tax de temps en temps gouverne euh, état bi dina jël ay mesures yoo xam ne vraiment dañu yaakaar ni ñu ngi dem presque ci euh, résolution problème bi. mu dellu ginnaaw mais day day la la preuve li amoon ci daara ba ba nekk ca Ndiaye. effectivement aussi parfois parce que une décision justice après mu pression après ñu delluwaat gannaaw ay kii yoo xamante ne sur le plan religieux. Mais je crois que là aussi, il faut beaucoup. Il y a des efforts à faire. Il, faut, y a des efforts à faire en mm, termes mm. aussi, ñu clarifier un peu. Euh, la problématique parce que c'est dans l'intérêt de ces enfants là je crois que faites que c'est l'éducation religieuse war nañ une bonne éducation religieuse sans pour autant ñu exprimer ci ki ay mendicité parce que ça, ça ressemble beaucoup chose. modernisation des daara et que ça n'a pas été appliqué. Abdelaziz euh, En fait, euh, oui, moi je crois que... Socialement, vous avez réussi beaucoup par ben, rapport à les gagnants. Ben oui, absolument. Moi, je crois que ce qui. Mais Blasi, tout, est, tout est ouvert. Ah. Non, tout ne peut pas être ouvert. D'accord, Parce qu'en fait, quand même, ça, c'est pas de l'ordre de l'humain que les de d'Afrique nous barquent à 100%. Non, il faut que même des hauts. même gars, ils reconnaissent quelque part, ils les ah critiquent, qu'il y a des, vraiment, il y a des réalisations. Ah, mais absolument. Parce mm. qu'en fait, comme les vidéo, Il y a fang, qu'un qui dire. Absolument. Tu vois, Lolo, c'est une vérité, c'est une réalité. Maintenant, moi, je crois que d'abord, ce qu'il faut vraiment saluer, c'est la mesure d'analyser le viol parce que aussi euh, dafa am d'abord mesure bi c'est une mesure forte. Il n'y a pas de l'euphorie dans ce que vous non, dites. Non, non, ça dire il faut que nous comprenions comprendre aspect et puis vraiment nous njukkal aussi les organisations. de de euh, femmes les ONG les vraiment nous nga aussi des pour anam homme parce que l'autre aussi dafa am solo quoi donc si vous démé des ba lolu ñu ñu ñu jallalé ko mu euh, loi voté à l'Assemblée nationale c'est euh, madame nous nit ñi saluer à sa juste valeur mm-hmm. je suis d'accord pour la sensibilisation cest à dire parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe nous sommes tous des sénégalais ngay si sa kër avec ton jeune frère c'est jarbaat ak say mu parce que c'est la famille. Mm-hmm. Nous essayer mm. famille sax daf koy mm. c'est-à-dire yow sa mais initiative porter plainte. Mm-hmm. ton frère wala ton cousin. mais tu seras banni de la famille. alors que en substance dañu l'acte d'abord donc il aussi un impact qui ci nit ki nga xam ne le mm-hmm. parce que d'après psychologique très bien mm-hmm. donc moi je crois que d'abord il faut vraiment nous encourager à cette mesure bi nga jamais le président jël mais dans leen nelaw de parce que euh, des na buñ ko euh, buñ ko d'accord vraiment féliciter que d'abord sur ça <laughs> en tout cas moi je crois que toutes les organisations de femmes mm-hmm. comme vous M. Diouf. ont ont liggéey le cadre war ngeen dajaloo génn marche boo xam ne le président la parce que en général quand quand quand le quand vous faites des marches c'est généralement pour revendiquer casse-casse mais bu ngeen amee loo xam ne tamit dangeen ko doon ba mu baax aussi des fois day jaadu nag ñu ne marche bi day marché pacifique la pour delloo njukkal le président la République ci lii ñu daal loolu tamit day am solo parce que euh, bu ñu xoolee xam nañ ne le président de la République wax dëgg yàlla ci cadre boobu def na ci ay efforts yu am solo. Mm. Euh, maintenant par rapport la prison effectivement am rëbës dafa de de prisonniers. et moi je crois que dans ce cadre aussi état a am des dispositions pour éventuellement créer d'autres prisons. prisons fu mel ni ak yenen ak yenen yo xam nañ koy def pour permettre non cest veut dire lépp loo gis places vraiment pour euh, oui mais tout ça lépp loo gis comparé ak euh, ak oui mais mais amna amna am euh, xam xam nga Sénégal aussi mm. dafa lu bari dafa concentré wu à Dakar mais dafa am yoo xam il faut ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu désen ñu ñu désengorger dina permettre lolu en tout cas ñu réserver ñu résorber gab bari par rapport aux prisonniers yi nga xam ñom ñoy dem foofu en parlant des jeunes, des enfants, les enfants de la rue. Dara, mhm. Moi, je crois que faut pas dire que. président de Kowarabaï. Non, parce que d'abord. Il faut échouer. Non, pas échouer. Hamga, tay Dara moderne. Parce que Mais... comparativement avec les les plus si ont une initiative finalement, c'est presque. en allant à Djamnia, je n'invente rien. demal booy dem jam ñaajo ci ci ci arena bi c'est-à-dire na ay politique yoo xam ne ñu ngi koy def pour loolu beneen bi si topp culturellement xam nga man j'ai je dis souvent au Sénégal réew la moo xam ne mi da koy gere mais des fois on le gère aussi de manière culturelle parce que euh, y a très bien mm. il va falloir négocier lever équivoque en fait ce politique c'est extrêmement important la preuve il le cas de Ndiagne avec euh, euh, le marabout bi nous mm-hmm. en tout cas j'ai fait ñi ñi ñi ñi lay dóor pas parce que moment yooyu en fait parce que pour jàngale la mais dóoruñu la parce que dañ lay door parce que dañ la bëgg a dóor mais tey aduna moo dox o ba tollootuñu fu nga xam ne généralement léegi ay dóor la cest dire am réew day dox am na atrocité yi en fait aussi loolu la la nit ñi rafetluwul ci ay xale ñu vraiment jéng leen ay kii jël ay caabi tëj

may jàng laa ko amoon léegi bii fa lañ ma dóoram fa ça arrive mais yooyu ça arrive àdduna bi dox alors nous on va terminer sur euh, peut-être l'environnement c'est le dernier vraiment rempart donc de notre émission alors euh, de notre euh, débat gis nañu ne ci biir discours bi Macky Sall dafa dellu siwaat ci lu ay donc projet yoo xam ne am na ko bokk na ci ay Sénégal zéro déchet donc de manière inclusive ñëpp dugg la mobilisation nationale ba jël loi boo xam ne voilà dootu ñu permettre encombrement est-ce que euh, ci li nga xam mom ngeen dégg ci bile discours ñu jëm ci walu environnement appel ci euh, président de la république euh, donc Macky Sall def pour que sénégalais yépp xam ne tey wara joxat a joxaat gëdd cër li nga xam mom moom di mbedd mi ak ni ñuy doxalee ci walu environnement bi est-ce que appel bi c'est un appel solennel appel bi bah <laughs> donc le nga nga ne kat nañ leen defaraat toogaay yi mais dama gis ne état cëram sax donc euh, war na ëpp loolu parce que boo xoolee collectivités territoriales yi ñoom ñoo gën pour defar seen environnement ñoom ñoo ci gën parce que il a parlé de désencombrement wax les brigades spéciales. mais le communes yi mën nañ il suffisait que nous donc euh, renforcer les collectivités territoriales que nous mën en charge ces questions. d'autant plus que tu euh, mu euh, nga euh, territorialisation communalisation bi. justement les moyens n'ont pas suivi parce que avons ah. ben aspect bo xamante faiblesse le discours Macky Sall bi parce que xam nga bo xolé collectivités territoriales yi donc ñom ay démembrement lañu te amna ay compétences yo xamante ne transféré nañ leen ko mm-hmm. mais les moyens ne suivent pas donc il était donc euh, très pertinent donc pour nous wax ci parce que bo xolé jafé fait, yu collectivité du vivre temps yi avec euh, seen euh, contribution économique locale bobu ça pose problème Moi, dans ces mm. questions de désencombrement donc de prise en charge de l'environnement donc ay collectivité yu mel ni Tëngéej moi, ko jël en charge mm, mm. la preuve xam nga bi nga l'actuel maire fa ñëw muy muy Je dañaan li mu njëkkoon teg comme approche moom mooy ñu de de des désencombré. oui donc tout ça il fait partie des premiers. absolument avant que ça, ministre de l'urbanisme, n'y di def de mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, consistance. La consistance appui donc des autorités étatiques pour que l'on ñu que Dieu en charge a un suivi permanent. Mm-hmm. c'est ça la problématique Bon, mais actuellement l'autorité euh, étatique di euh, ces questions yoo xamante gérer à un niveau assez inférieur. Donc, ça peut poser problème. Mhm. Un ministre qui vient pour euh, diriger des opérations de désencombrement, donc, c'est pas bien. Mhm. Donc, les maires, donc ensemble dans l'intercommunalité nous allons gérer. ces questions quelque part woote na ASI e hein? pour que def un euh, concours national. aurait que c'est pas pour encourager l'aspect social euh, euh, c'est des politiques à la base c'est des politiques à la base. les conseils de quartier que nous créons, c'est pour prendre en charge ces questions. c'est nous nous créer des cadres de concertation avec les comités de développement donc c'est des cadres qui nous allons mën en charge ces questions là avec les mairies parce qu'il a parlé de communalisation intégrale. Maintenant, communalisation, intégrale, donc, il faut avoir un accompagnement des, pouvoirs publics. Nous avons les ressources, nous transférer les ressources. Beaucoup de faits, donc, nous, collectivité, nous mener à charge ces questions. Donc, euh, aménagement paysager, désencombrement, le maintien de l'ordre, le nettoyage, la collectivité locale. Maintenant, il faut que l'État donc renforce les collectivités territoriales pour que nous L'autre moment, est par exemple l'autre peut-être euh, on va lancer un prix tout ça donc euh, à l'échelle des communes à l'échelle des villes à l'échelle des départements en charge mais veulent tout accaparer C'est un rôle de substitution. non non la reconcentration. <laughs> donc euh, état le Sénégal a encroché un processus de décentralisation. Avec l'acte 3, oui. L'acte 3, donc, euh, qui n'est pas évalué, donc, euh, jusqu'à présent, avec ces difficultés que nous rencontrons. Maintenant, donc, euh, quand l'État maintenant en charge dans ces questions de désencombrement, c'est assez, assez, primaire. Baradjouf, est-ce que on a l'impression, avec ces projets donc, sur l'environnement, l'État fait de la substitution par rapport à les collectivités territoriales ndax dafa mel ni kuy jëlaat seen place moom mi nga xam ne da euh, d'emblée euh, moom moo en pour que nous cet aspect environnemental nous nous, nous avec l'encombrement, le maintien véritablement donc, de la propriété de, du milieu public. Oui, mais euh, un petit problème. L'État doit de la propriété culturelle, mhm. mais là, que depuis la création de l'UCG. Oui. Parce que UCG, mhm. l'État du Sénégal, doit faire la gestion des, des, des, des, des déchets solides. Confier, Coco. Dieu le dans, des mains des collectivités locales par exemple dans la région de Dakar il y avait l'entente Karatkar. oui, oui. Donc, UCG mhm. au niveau central au niveau central ils ont des problèmes pour manager la la, gestion des des, des, des, déchets aujourd'hui mhm. problème au Sénégal la gestion des déchets c'est un problème du Sénégal mhm. maintenant dafa am c'est c'est c'est c'est révélateur de état ou société société bu nekk seen seen espace public da lay wan état wu société bi tay ji Sénégal ku ku am gan andi ko Sénégal euh, bu xoolee dëkk bi nu mel ak mbalit euh, da lay xép ouais donc lolu réalité la. Mm. que président de la République jël ci conscience ba di ci wax c'est une bonne chose maintenant avec le président Macky Sall c'est toujours la même chose. parce que le 4 avril aussi waxon nako la veille. le 3 du mois mais mais fala don doon jëm. <laughs> il avait décidé ici à Diamniadio mu ne dañuy def. chaque dimanche chaque samedi de chaque premier <laughs> samedi de de de de chaque mois des cleaning days noonu lañ ko tuddee mm-hmm. tey changé nañ euh, cleaning days indi nañ ko des journées de la propreté mm-hmm. tey ñu ngi wax ay prix je damay ragal ñu ba ñu def fi li nga xamante ne moom lañ moom la fi mairie Rufisque defoon le le le prix du quartier le plus propre gestion wu ordure gestion euh, gestion wu gestion wu déchet mm-hmm. franchement war na génne cadre wu cadre ñu ko bëgg dugal gestion des déchets dafa war a nekk la nga xamante ne du nekk cadre ay set setalu dimanche franchement aujourd'hui c'est bien ñu ne chaque dimanche dañuy génne set setal mais il faut que ñu régler problème mu problème mu ki mooy mooy mu gis oto bu mën a jël mbalit këram mais mbari kenn mënul dëkk ak moom mbalit bi bu la sonal da ngay génn nga ko ci donc réalité bi mooy il faut que état du Sénégal mettre en place une stratégie nationale bu mën a gérer électricité bi mm-hmm. maintenant zone mbalit mi loolu mënul nekk en un niveau central je suis désolé mm-hmm. aujourd'hui li état bëgg def concentrer toute la gestion de de de de de de de des au niveau central mm-hmm. reconcentration comme ni ko grand bi di waxee mais loolu du ça va jamais aboutir parce que état dafa dafa dafa dafa dafa dafa il faut que la gestion des ordures mu revenir à des communes et communes yooyu pour ñu revenir pour ñu mën a gérer ordures yi il faut que réellement li nga xamante ne moom lañ doon moom lañ soxla en terme de de de ressources ñu mën ko am aujourd'hui état central mu ngi jël na accaparé wu na li nga xamante ne mooy la la contribution économique locale aujourd'hui une ville comme Rufisque loolu moo affaiblir d'ailleurs les collectivités territoriales absolument kii mm. euh, euh, euh, mm-hmm. de manière générale de l'acte 3, moi dans l'allocation de ressources kenn xamul leen ci bëgg def hmm. mooy li ma doon wax la question c'est on a on a revient moi la question de la vision du président Macky Sall vision moi moo moo am problème il est dans les effets d'annonce dégg naa sànq Sonko dane waa ji dafa dafa yolom signature il est dans les effets d'annonce annonce yi moo mais loolu c'est grave quand même beneen bi hmm. en parlant d'environnement hmm. il faut que ñu wax ñu quelle est la vision même si c'est mon ami il y a quelques jours nous ne dañ nous euh, quelques jours après ñu né duñ ko qu'est-ce qu'on va mhm. faire dañ koy déplacer qu'est-ce qu'on va faire mhm. question environnement aussi il y a la question de l'assainissement aujourd'hui qui pose un grand problème notamment à Rufisque mais notamment à Rufisque où sont tous ces projets qui ont été annoncés à Rufisque Le projet des 6 milliards pour le, le, le, le, le, le, le, Mm. Allah tribune Assemblée nationale en septembre 2017 déclaration de politique générale Mohamed Boun Abdallah John. absolument d'ici quelques mois de ko reprofiler mm-hmm. les marches sont lancées depuis plus de deux ans c'est en cours aujourd'hui président Macky Sall doit faire un élan ma beau de citoyens qui avaient lancé les clean up challenge sur internet benn waay bu nekk dans un pays c'est su ma juumul c'est c'est un c'est un c'est un quelqu'un d'origine tunisienne mu dem gis benn place benn place nettoyé ko wan ko place bi mu nettoyé Sénégalais di def loolu aujourd'hui li ñu waroon la li waroon def mooy ces clean up là ñu fexe ba luñ ko war a accaparer au niveau de chaque quartier nit ñi accaparer ko mais loolu mooy volo bi gën a ndaw le volo bi gën a mag mooy ñu fexe ba Sénégal mu leer na deux fois wala trois fois par semaine boo taxawee sa buntu kër oto mbalit dina ñëw jël sa mbalit nga mën a génne sa mbalit si koñ bi loolu buñ ko deful on dinañ delluwaat si problème yi nga xamante ne moom la doon am beneen bi si côté environnement ba tey mhm. am na une autre question boo xamante ne duñ wax mooy mooy ne aujourd'hui l'état du Sénégal mu ngi bàyyi ay promoteurs privés ñu accaparer carrément le le le bord de mer oui oui oui tey jii aujourd'hui je crois que euh, Philippe tout à l'heure mon corniche mhm. bi nit ñi am kuñ fa presque accès tey kóoram géejawaay oh, dagg nañ ko def ko ay ay ay terrain moo tax ma que les gens yi nga xamante ne ñoo nekk suñu suñu côté bi parce que ñun rek ñoo fi dese place bu bu ah libre ah bu ñu deful attention ñun ñu rek tëngeej les gens dañ ñëw jël suñu place ils vont s'accaparer nos places parce que nit ñi fa lañ mooy mooy condition de vie yi nga xamante ne moo gën a moo gën a moo a neex mooy nga nekk nous de la plage bord de plage aussi pérenniser mhm. aussi ce qui se passe au niveau de avec la station de de de l'ONAS mhm. aujourd'hui station ONAS les populations environnantes disent que la pompe de traiter les eaux elle ne fonctionne plus donc station euh, ndox eau usée bi directement da koy sànni biir géej mais lolu c'est c'est c'est carrément c'est une catastrophe alors euh, Philippe mhm. est-ce que euh, euh, le problème de l'environnement appel yi nga xamné le président Macky Sall def nako projet yu bees yi nga xamné ne bëgg ci taxawal est-ce que dina arranger li nga xamné mom modi organisation sociale bi ñu am pour sauvegarder suñu environnement waaw je crois que le projet bi ci pour moi, c'est un bon projet. très bien. Euh, parce que comme nous ma rappelé le droit à un environnement sain droit fondamental parce que xam nga euh, boo euh, évoqué l'occupation euh, l'occupation anarchique du domaine maritime mais y a une incidence ci sur suñu cadre de vie et même sur notre santé oui parce que boo il y a une zone mais dootuñu am sax air pour noyyi alors que yooyu dafa am loo dafa am solo ci nit euh, air marin bi jóge si kii bi comme ñoom dañuy ñëw tabax def ay béton gi yooyu bon ce qui fait que alors que domaine maritime ñëpp ko bokk mm-hmm. je crois qu'il même une loi sur le domaine maritime bon mais comme ñoom aussi ñoom ñoo yore seen moyen ñoom ñoo yore aussi seen loi peut-être mun nañu ay jël ay décret yoo xam dañuy déclassifier jox ko ñoo xam ne am nañu moyen mm-hmm. je crois que moo tax léegi xam Il ne il faut pas deux poids deux mesures. c'est vrai. maintenant problème du désencombrement euh, ça je crois que c'est quand même un problème crucial fini euh, dans nos villes Dakar. Mm-hmm. parfois dans les zones ngay gis benn ñu dégager ñi nga une voie euh, une occupation anarchique à cette voie-là nga une semaine deux semaines après les gens reviennent donc problème mu suivi bi Bon, moi, votre tax dama ça c'est un bon projet maintenant quelles sont les modalités d'effectivité nan la ñuy def mesure de ñuy jël projet Bobu, concrètement Projet mm-hmm. et puis am dans la durée Pour éviter d'ailleurs ce que Bara disait les effets d'annonce voilà lu ñuy voilà dans la durée mm-hmm. je crois que problème bi discussion il la refaire. parce que le président de la République du 4 avril euh, qui euh, ci commencé jëm ci mbedd mi bu ko ñu pour aujourd'hui mu wat un euh, projet euh, c'est pour encourager la préservation de l'environnement est-ce que vous pensez que entre avril et décembre il y a eu des réalisations concrètes sur le plan de la gestion de l'environnement pour l'État du Sénégal oui en fait par rapport à environnement mbalit tout ça moi je crois que euh, dafa am lo xamné et je l'ai je l'ai je l'ai toujours dit hein. euh, Sénégal dafa am lo xamné li il va falloir que ñu mm-hmm. mën ko def c'est quoi moy li président muy wax ci discours am bi c'est-à-dire il faut mu am une mobilisation nationale et citoyenne pour que li ñu xamné mom lañ bëgg ñu mën ko def par rapport à la gestion des ordures mais xam nga parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe euh da ngay wax ne aw ma oto am na ay ay auto yu ñëw di ramasser ay mbalit mm-hmm. mais le problème c'est quoi c'est-à-dire cest à mm-hmm. je crois que on a am na benn débat buñ dajé on a je crois c'est à DTV mm-hmm. on en parlait c'est-à-dire aussi que nit ñi aussi il faut que tamit ñu def benen prise de conscience par rapport ak déchets yi quoi parce que mëno ñëw moi je dis souvent que ne nous on a des problèmes à Rufisque en parlant des des canaux à ciel ouvert mais lan moo et pourtant par exemple moi je, par exemple je vais à à Florence mais su ma ñëwee taxaw foofu gis seen kii ak ndox mi comment c'est beau mais là, c'est de la discipline acte de l'ordre mais avec une conscience citoyenne Je suis tax ñoom mu mën a mais nit da ngay ñëw rey sa nag jël butit beeg bopp yeeg daje ñëw sànni si canal bi dem sa yoon pour yow tu tu règles problème alors que tu crées beaucoup plus de problème te li ngay li ngay créé li nga foog ne régler nga sa problème régler woo ko mhm. en fait tu crées un problème boo xam ne bi après dafay indi comme li ñu wax sànq ay problème de maladie mhm. parce que da ngay dëkk ci go fi ndox mi waroon ndox mi waroon dem dematul pourquoi parce que nit ñi ñoo obstruer le passage des eaux par ay ay ay ay ay ay voilà mbalit yi teg fu war la tek toy motax mané c'est un problème bo xamné c'est vrai clean clean up comme yi ñu doon wax c'est pas mauvais en soi hein, c'est bien que nit ñi des fois euh, ci sa quartier par exemple ay journée pour pour pour pour defar pour set setal balayeti ni amna solo mhm. c'est-à-dire nous fexe nous nous ñu pérenniser après cet du fof nous koy pérenniser c'est-à-dire domaine yoy lañ wara réfléchir mais moi je crois que c'est un problème qui incombe à tout le monde mhm. donc il faut il va falloir que ñun ñep kenn ku ne il faut que ñun ñep ñu japp si ah, bu ko defee permettre ah, euh, que affaire mbalit yi ñu jël ko à bras le corps pour parce que on dit toujours un environnement sain, un corps sain dans un esprit sain dans un, dans un corps sain, un corps sain, un dans un environnement sain. Dans un environnement sain. Parce que l'autre dafa am solo. Mm. du problème le euh, président de la république le problème mu Massam le problème de c'est-à-dire c'est un problème boo nous mais contrairement à l'État, pay voilà état bi waru ko centraliser l'état a d'autres priorités mu bàyyi ko collectivité locale mais oui xam d'autres moyens xam collectivité locale aussi mm. moi je crois que. Euh, euh, buñu you rek état aussi amna lu mais collectivités locales certes amna ay collectivités locales ils ont quand même quelques moyens de pouvoir faire yenn mais du mhm. donc il va falloir ci cadre état bi bu peut permettre à ces petites communes nga mhm. moi je crois que présentement état bi en considération en tout cas au niveau du ministère des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement du territoire il euh, ay des am solo euh, par rapport à budget ay nga dinañ ko def am fonds de dotation et fonds de dina de manière substantielle permettre mais dans ce cadre précis moi je dis toujours que va falloir une mobilisation citoyenne de tous pour que nous puissions régler ces problèmes là parce que lolu rek c'est ça mhm. la vérité des faits voilà donc euh, euh, ci euh, li nga presque maudit le terme donc de ce débat Il y avait une question donc sur les réseaux sociaux destinés à Bara naka lay gisee li les dix donc premier mois de Macky sur le plan donc de l'économie et également la fisc face à la création de Diamniadio désolé <laughs> on va laisser peut-être les euh, les dernières appréciations à donc euh, Issa Paye qui euh, tàggatoo bi par rapport à ce débat sur le discours du chef de l'État La tenue est ñun ñëpp sur un tour de table des derniers mots tàggatoo bi Inch'Allah. merci Moussa di di le gërëm di donc euh, si opportunité bi nga xamantene ne mbay nga ñu ko ñu waxtane mbirum réew mi ak euh, suñu mbiru gox-goxaat. la seule question bi ñu bayyi surtout euh, les deux questions moy mm-hmm. énergie ak le terrorisme la sécurité. Malheureusement, hein. c'est des questions internationales. Donc, euh, mm. on doit avoir des positions communes pour l'intérêt du pays. Hein? Mm, mm. Donc, euh, c'est important. Dit aussi que euh, nos amis donc, de l'État, pour nous appeler les collectivités territoriales, parce que vous n'avez que des. Donc, y a beaucoup de souffre-douleur. Ça, comme Rufus, que vraiment souffre avec la selle, tout ça. On a, on a, on a d'énormes difficultés pour prendre en charge les questions d'investissement. Mm-hmm. Donc, il y a eu aussi, donc, des questions sur lesquelles le monde dit que nous Je remercie ce co batteries, donc, euh, Abdelaziz euh, Bar Diouf. Mais je que estimé qu'il il y avait vraiment du respect par rapport euh, à les réactions. Donc, aussi, donc, comme donc dañuy waxtaani mbirum réew mi donc euh, il faut ñu joxante cër te macha allah aussi tamit euh, la manière bi nga xamante ne kon nga ko bi aussi mm-hmm. nous a beaucoup inspiré pour avoir ce ce comportement hein vraiment di euh, wax nit ñi ñu am aktam jàmm naataange donc pour deux mille vingt te aussi la nga xamante ne donc président wax na ko ah yàlla na ko yàlla mottali am <laughs> yéene yi waaw ñu neexee ñu yéene donc am ay pexe moom. bien euh, que amul amul vision donc voilà Baara euh, sa tàggatoo. waaw jërëjëf Moussa si invitation bi euh, di remercier aussi ñi nga xamante ne moom ñoom laa bokkal bokkal plateau bi. bari na ay questions yoo xamante ne on aurait pu en parler les questions de jeunesse les questions d'emploi. oui parce que jeunesse. mu si wax ci ah. promesse bi mu defoon de un million d'emplois par année il n'en a pas parlé mais yëpp ay éléments la yoo xam ne peut-être dans dans d'autres débats futurs mën nañ ci waxtaan absolument mais l'essentiel booy euh, euh, ñu comprendre que ne ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal mm-hmm. te ñun ñëpp je pense que ñoo bokk yéene mooy Sénégal avancé Sénégal jëm kanam mm-hmm. euh, Macky Sall la yàlla teg ci bopp réew mi ñu nanguwul ko loolu mm-hmm. ñaanal ko yàlla aussi yàlla may ko xel mu gën a ñoŋ ba li nga xamante ne yéene na ko mu nekk lu baax ci Sénégal yàlla may ko mu yeggali ko. Mm-hmm. yi nga xamante ne gis nañu peut-être ay njuumte la wala yoon la boo xamante ne du yoon bu bu bu baax moom mu comprendre que ne euh, mu dañ war a changer. mais fi may terminer rek mooy euh, di souhaiter un joyeux un joyeux euh, les meilleurs à la population de Rufisque mm-hmm. ak Sénégal yëpp. Mm-hmm. aussi di une pensée pour mon ami Guy di parce que mois de prison pour manifestation. pour euh, franchement. Mm, euh, c'est des petites choses ne suñu démocratie. non non nañ avec Macky Sall. Mm. Euh, parce que Macky Sall image bi nekk sama place de place de la nation en 2012. place de la nation en 2012 Macky Sall yor mer bi wacc talal lox bi romba samay tank ni mané ne tey personne bi nga xamantene ñun suñu xex buñu xexon fofu moko tax mu nek président parce que réalité bi moy lan moy buñu xexul won 2011 ba car ticket bi ticket bi ba président Abdoulaye da doon indi ak 25 nga nek président buñu xexul won lolu am 2012 processus électoral bi aujourd'hui Macky Sall président de la République si ñu des gens comme des gens comme Leuz des gens comme euh, le jeune Sarr bokk nañ ay lañ de manière démocratique je pense que aujourd'hui Euh, euh, li ñuy laaj li ñuy seetlu si président Macky romb na loolu quoi. Mhm. parce que ce n' est pas un un un nga tëj benn guimaaru saa mooy tax Sénégalais yi arrêté di wax ne électricité bi donc nanguwuñu mu mu mu yokk donc foofu mooy c' est question de reg euh, ni ñu régresser de manière démocratique sur ces questions la mais franchement de quoi. parce que mhm. ñun en 2012 ay jeunes dem nañ buntu pale taxaw contre contre. Abdoulaye surtout l'ordre public ça devient un fourre-tout quelque part. l'ordre public est troublé par des choses que aujourd'hui c'est le ñu aujourd'hui les mm-hmm. Sénégalais ne sont pas en sécurité on n'en parle pas assez il y a beaucoup d'agressions malgré que nos forces de l'ordre nous ngi nekk ay mais ils sont en sous-effectif mm-hmm. aujourd'hui on a besoin d'avoir plus de, policiers dans nos rues mm-hmm. mais effort bi ngay gis état pour répression de manifestation effort boobu pour répression euh, euh, euh, euh le le malfaiteur. ah Michel euh, tàggatoo fu ma jëlee fu ma jëlee Philippe bi Michel fan laa ko jëlee Michel bi ah, Philippe ah, Diouf maa ngi jégalu d'avoir écorché ton nom maa ngi lay remercier vraiment di remercier aussi euh, ñi mu bokkal plateau bi di rafetlu aussi esprit débat bi man dafa naa ne euh, lii mooy Sénégal xalaat ku nek amna sa xalaat mais dang koy wax di deglu d'accord d'abord nga d'accord accord que kay am xalaat bo xam bokul ak sama xalaat nangu ko deglu ba pare jox ko sa xalaat je crois que koku ñun ñi fi nek ñep en tout cas man en ce qui me concerne enrichir a bu baax si débat bi ñu am fi ni parce que débat quand même riche et très serein mm-hmm. donc euh, lool vraiment man koy rafet lu té démocratie non lay doxé quoi démocratie contradiction moko lal mom mm. moy tax mu avancer Euh, c'est vrai aussi bon am na ay point de wax mais xëy na temps bi ko que une de temps je crois que aussi au niveau de la liberté d'expression trois marches yooyu il faut am na fi sooxe tuuti donc euh, maa ngi ciy profité aussi pour euh, présenter mes meilleurs vœux Euh, d'abord euh, aux gens de la radio. Djokob, mm. merci c'est gentil vraiment. xam la laa bokkal plateau bi. absolument ak aussi à euh, tous les Rufisquois toutes les Rufisquoises ak sénégalais ak sénégalaises yëpp. mel na année deux mille vingt année développement. Mm, mm, année jàmm pour Sénégal. jërëjëf donc mu Abdou Aziz Seck ci tàggatoo bi. voilà <laughs> merci Moussa. Mm-hmm. en fait man li may wax rek mooy di féliciter. Euh, Joko FM nga xam moy sunu radio mën wax du département et chaque fois moi je j'en profite pour lancer aussi un appel mm-hmm. aux leaders yi nga xam dañu dëkk fi ci gox bi ci département bi mm-hmm. ñuy ñëw fii à Joko. di débattre di di waxtaan ak askan bi mm-hmm. euh, donc loolu luy am solo la parce que nit ki li nga xam ne moom nga am encore valorisé Et moi je dis toujours que djoko euh, euh, euh, donc j'ai invité nos nos nos nos leaders là aussi que bien que des des mm-hmm. politique. Nous, mais war ñaax pour ñu ñëw euh, di di gëna renforcer doole radio bi euh, di gëreum aussi ñi nga xamne ñom la laa débat bi mm-hmm. euh, di len gëreum muy Philippe di bara et monsieur Paye mm-hmm. di wax ne rek limay limay li may rek tout rek moy mm-hmm. pour wax bara ne ko vraiment ñun aussi hein ah, man personnellement kenn du am sa mbokk wala sa sa dëkkandoo en tout cas un compatriote nga di ko yéene xat-xat wala naxar donc pour le cas de Guy Marius Sagna bu ñu sañoon mu nekk ci biti mm-hmm. mais c'est benn affaire bu ndaw rek laa bëgg wax aussi xam nga Sénégal aussi il faut que ñu nangu aussi que réew mi dafa am ay normes ak ay droits yoo xam ne aussi nit ñi dañ ko war di bàyyi xel doolu droit de manifester nit ñi am na droit manifester mais xam nga boo nekkee dans une démocratie aussi la démocratie dañ ko war a organiser parce que elle n'est pas naturelle kon dañ ko war a encadrer aussi raison pour laquelle bu ay marche amee bu bu amee ay dispositions yi ñu jël ñu wax ne ah marche bi jox nañ leen itinéraire bi jaar leen fii wala marche bi dañ ko interdire pour raison yi c'est-à-dire ñun souvent dañuy wax ne way préfet nangam mais ñoom dañuy nekk ci dëkk bi am ay information yoo amul yu ma amul hmm kon buñu jëlé ay disposition di wax di di interdire yenn c'est parce que dafa am fu leer fuñ ko tek mais buñu ñëwé jox la itinéraire aussi nga war fa jaar pour marche da nga ko war respecter mais ñu jox la itinéraire nga war fa jaar jaaruloo fa nga continuer de brigro di ñëw et puis xam nga ñu ñëw ba ci ay grilles yu palais suppose ñu naan les grilles du palais pour ñeneen ñi naan way l'état a failli parce que voilà naka lañ mëna a ñi ñëw <laughs> rapidement Aziz waaw parce que alors que yooyu dafay aussi ne bébé de euh, l'année bi le palais quoi qu'on puisse dire askan bi ñoko mom mm-hmm. parce que avant avant avant avant Macky Sall y avait il y avait Abla y avait y avait Abdou Diouf ensuite Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade donc Macky il va partir keneen mooy ñëw cadre le palais donc c'est des des édifices publics qui xam symbole la dañ ko jox aussi dañ ko wara respecter kessé la amone ci lo ci en tout cas encore une fois mm-hmm. di Grum, Dylan di sant mm-hmm. di len ñaanal atum comme niñ ko dit ci commencement bi di mm-hmm. souhaiter une bonne euh, fête de 31 décembre et vraiment un début de mois de janvier 2020 pour xamné bi dina nek année bu naat bu bax bu Sénégal réconcilier avec soi-même. Mhm. ñëpp juboo bokk nday bokk bay ñu and liggéey réew mi pour l'intérêt supérieur du Sénégal. jërëjëf tout le département de Rufisque. Mhm. plus précisément maa ngi lancer un petit coucou aux gens de Kër de Sarr di leen gërëm di leen sant wa ngeen jëf euh, yéen itam euh, mbokku kat yi rafetlu seen teewaay yéen tam yi nga xamné yow na nangu woon ñëw bi le débat. Euh, particulièrement ki nga xam ne moom moo di euh, daanaka Issa Paye naka noonu euh, Bara Diouf ak kii di Philippe Diouf itam Abdou Aziz euh, Sek ñewon tay euh, waxtaan ak yeen mbokku déglukat yi ci li nga xamné euh, débat bu concerné discours bu njiitu réew mi ci njeexital at mi rafetlu lool seen and ak radio FM di len souhaiter également une très bonne et heureuse année 2020. mille vingt bi ñuy duggu di jox également ci bébé de l'année Jokko FM ni mu tam di ko def at mu jot dox ci département bi set ci bép gox ana ban xalé moy jëkk juddu sargal ko sargal euh, ay waajuram euh, di ci woo sax sama a ah donc <laughs> bu seen euh,